ñu ngi seede it amul benn buur boo xam jaamu ko ci dëgg jaamu koy jëriñ ñàkk ko jaamu di loraate ku dul moom borom bi subhanahu wa taala di na ne yàlla subhanahu wa taala moo tànn yonente bi alayhi salaatu wasalaam mu doon ci gën ci doomu aadama yi yónni ko ci xeet yi gën ci xeet yi wàccee ci moom téere bi gën ci téere yi muy alquran al karim jox ko diine gën ci diine yi muy diine lislaam muy islam xeet yi gën ci xeet yi muy xeetu lislaam tijjee ko li nga xam ne moom mooy buntu yonent yi buntu yonent yonent yonent ñu ngi seere ne yonent booba yàlla tànn nga xam ne jaamam la waaye ndawam la li ko borom bi subhanahu wa taala santoon sasoon ko ko muy mottali lislaam mottali na ko ci anam yi nga xam ne nun la gën a rafete ba tax na lépp loo xam ne luy jëriñ xeetu lislaam la moom yonent bi alayhi salaatu salaam xamal na ko aw xeetam laata mu fi jógee waaye lépp loo xam daf leen di lor xamal na ko aw xeetam pour ñu daal di te ñu ngi toogal borom bi subhaanahu wa taala ne yonent bi alayhi salatu wasalaam jottali na liñ ko santoon bàyyiwul dara ni mu ko waxee taraktukum alal bayda daf ñoo bàyyi ci xàll woo xam ne weex tàll la guddeem ak bëccëgam ñoo yem ci kaw loolu moo tax borom xam-xam yi ne njub li yonent bi alayhi salatu wasalaam indi woon diine ji nga xam ne moom la indi woon yoon wi nga xam ne moom la indi woon du ko réere lu dul waajoo xam ne yàlla dafa dindi ci moom ne kii dafa nar a sànq ñu ngi ñaan borom bi mu dal ko jàmm xéewal ak moom ak ay saxaabaam ak képp koo xam ne topp na seen jub ba keroog bés penc gannaaw loolu ñuy ndokkeel mbokk yi ci li nga xam ne moom mooy weeru koor yi nga xam ne nekk nañ ci di ñaan borom bi subhanahu wa taala mu jéggal si nanguñu li nga xam ne moom mooy suñu jaamu gannaaw loolu ci programme euh, koor bi ñu ngi demee ci jàkka ji incha allah taala tey war a nekk ñaareelu programme ci waxtaan yi euh, ñu war a waxtaanee mbir mu am am solo boo xam ne ñun ñëpp ko yittewoo muy mukaffiraatu zunub mbir yi nga xam ne dafay far bàkkaaru jullit bi dafay far bàkkaaru doomu aadama bi yooyu mat a xam la ndaxte borom bi subhaanahu wa taala ñuy bindee doomu aadama bi daf kaa ci anam boo xam ne nekkul maasum mun ta ñàkk mooy borom bi subhaanahu wa taala waaye la am solo mooy su mooyee borom bi subhaanahu wa wala mu tàbb ci njuumte mu xam naka lay defaraate loole moo tax borom bi ñoom ku tàbbi ci bàkkaar waaye ku tàbbi ci bàkkaar luy ci loolee la borom bi subhanahu wa taala ngañ moo tax mu ne walladina ida faalu fahisha aw zalamu anfusahum zakaru llah fastaghfaru li zunubihim walam yusiru ala ma faalu wa hum yaalamun gaa yi nga xam ne buñ defee bàkkaar ñoom dañuy yëg ne def nañ ko duñ ci wéy dañuy tudd yàlla fàttaliku ko seen xel dem ci yàlla ci duñ wéy di def euh, di wéy ci la nga xam ne moom mooy bàkkaar yooyu nga xam ne def nañ ko kon euh, li nga xam ne moom mooy def bàkkaar bi euh, boroom bi dafa wax ne gaa yi nga xam ne suñ ko defee ba mu yëg ne def nañ bàkkaar su ko defee ñu daal di gaaw tiit dellu ci borom bi subhanahu wa taala di koy tuub loolu moom moo tax ci ay xadis yu bëree bëri yonent bi alayhi salaatu salaam mu ne jullit bi am na yu bëree bëri yu feebar ci dox ba ci mbedd mi wala sax ci ay dëgg yu koy jam mu ne yooyu dañ koy pompal ay bàkkaar yoo xam ne dal na ko mu tax ci xadis góor boo xam ne alimaamul Buxaari génne na ko ko ci yaay Aïcha ak ci beneen boo xam ne ci Ibnu Mas'ud la ko jëlee daal di koy solo yonente bi alayhi salaatu salaam ne ma min musibatin yusibu almuslim xatta shawkatu yushaaku biha illa kuffira biha anhu sayyi'a mu ne amul benn musiba buy dal jullit bi doon ko dafay dox ci mbedd mi sax ab dëj jam ko mu ne lu dul ne jam boobee dëgg bi jam ko métti wooye mu mu ci yëg dañ ko ci ko ci fompal li nga xam ne moom moo ay bàkkaaram kon gis na yiy fomp bàkkaaru jullit bi dafa bëri lool ba tax na yooyu ma a xam la wax dëgg yàlla euh, te yonent bi alayhi salaatu salaam waxoon na Muaaz ibn Jabal ne ko wa atbi sayyi'ata al-hasana tamhuha saa boo defee lu bon gaawal def lu baax parce que daf koy fomp borom bi wax fële ci suuratul Huud daal di wax ne wa aqimi salaata طرفي طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين aaya boobee borom xam-xam yu bëree bëri dafa am benn waay ci yi ku nekkoon ci benn bitigam wala kantinam di jaay am as soxna su ñëw a jënd benn marchandise joxoñ ma waa ji ko gisuma marchandise bi da ngay fexe ba ak si war ma bëgg soxna si dugg si bitig bi bi soxna si liggéey ci cantine bi mu daal di dal ci kawam daal di koy fóon soxna si dem loolu bi mu amee xam ne wax yoon wàcc su fekkee ne gaawul dem waxee ko wax yi mën naa wàcc daal di leeral ay mbiram mu tiit ci loolu dikk ci kanamu yonent bi alayhi salaatu salaam ne ko halak ne ko alkuna yonent bi alayhi salaatu salaam ne ko ma maa ahlakaka lan moo la alak mu ne ko waqaatu ala imraa dama daanu dama jote ak jigéen yonent bi alayhi salaatu salaam mu laaj ko nan nga jotee ak moom mu daal di koy wax mbir mi ni mu demee mu toog tuuti borom bi daal di wàccee aaya bi nga xam ne eh, borom bi subhaanahu wa taala ma ngi koy wax naan innal xasanaat yuzhibna sayyi'aat li nga xam ne moom mooy jëf yu baax yi dañuy far dañuy fomp dañuy yóbbu li nga xam ne moom mooy jëf yu bon yi kon wax dëgg yàlla loolu dañ koo aajowu dëgg-dëgg léegi nag mbokk mi insha allahu taala ci war a taxee waxtaan bi suñ xam la eh, bi jar ñu koy présenté muy suñu mbokk al ustaz Mor Kébé Euh, dana tënk waxtaan bi ci ñetti tomb yi mooy awalan anwaau zunub façon bàkkaar yi am yan la parce que bàkkaar yi mu ngi benn daraja dafa am yoo xam ne ñoo nekk ca kaw am yu nekk ci digg bi am yu suufe kon façon baakaar yooyee dana ci dikk leeral façon bàkkaar yooyee ba pare gannaaw gi su leeralee façon bàkkaar yooyee mu leeral bàkkaar bu nekk tamit ni mu koy tuubee parce que bàkkaar bu nekk ni koy tuubee yemut ak beneen bàkkaar su si jógee it dana dikk ci li nga xam ne moom mooy al asbaab mbir yi nga xam ne moom mooy moom mooy waral moom mooy waral loolee su fi jógee nag daanaka mooy ñetteelu tomb bi nga xam ne moo gën a dugg biir waxtaan wi moom mooy al mukaffiraat mbir yi nga xam ne texte ñëw na ci alquran wala texte ñëw na ci sunna ni mbir yi dafay far bàkkaar yooyu nag insha allahu taala moom lay tëjee waxtaan bi su ko defee su jeexee euh, daañ jéem a jukki laaj yi nga xam ne dikk na fi aju surtout ci li nga xam ne moom mooy ci wàllu thème bi insha taala kon Cheikh tafaddal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 ala kulli xaal comme nu ko Cheikh Omar waxee eh, ni ci lañ koy tàmbalee ci ndokkeel mbokk yëpp ci weeru koor muy weer boo xam ne weer bu màgg la yonente bi alayhi salaatu wasalaam daan def bu weer ga weeram mosoon a teru mu taxaw ci saxaaba yi ndokkeel leen daal ramadan shahrun mubarak farada allahu alayhi siyaama bi alayhi salaatu wasalaam bu weeru koor mu sante mu daana tax leen weeru koor dikkal na leen shahrun mubaarak weer la boo xamante ni weer bu barkeel la yàlla subhanahu wa moom moo farataal ci yéen ngeen woor ko ba xadis ba jeex kon dañuy ñaan yàlla subhanahu wa taala mu dolli ci ñun ay xéewalam ci weer wi ak njëggalam ak yërmandeem nangul ñu suñuy jaamu euh, mu def itam weer wi du génn mukk du dul ne moom subhanahu wa taala muccal nañu ci safara waral ci ñun njéggalam ak yërmandeem subhanahu wa taala leneen li ci des mooy liñ fi dajale mooy almawdu muy tam biñ mbokk bi wax Cheikh Omar mukaffiratu zunub muy yi nga xam ne moom mooy far bàkkaar nekk ay mbir yu am solo nit ki xam ko euh, ndax dañuy wax ne euh, jullit comme na ko ibn alqayim rahimahullah di waxe dafa mel na comme picc picc bi dafa am ñaari laaf am bopp bopp bi ak ñaari laaf yi bu ci dagg du dem ñaari laaf yi benn bi mooy al raja benn bi mooy al bopp bi mooy al mooy bëgg ñaari laaf yi benn bi mooy am yaakaar beneen bi mooy ragal bopp bi mooy bëgg moo tax raja boobu muy yaakaar boobu jullit bi di yaakaar ci dund lu am solo la léeg-léeg di ko waxtaane ndax nit ki baax na di ko xub di ko ragalloo mais mi di ko yaakaarloo ak di ko foogloo njëggalu yàlla subhanahu wa taala ak yërmandeem lu baax la ndax dina ko gën a sawarloo li njëkk ci bunt bi mooy xam ne yàlla subhaanahu wa taala ci coobareem moom moo sàkk doomu aadama ci matadi mat moom yàlla rek subhaanahu wa taala moom moo ko def matadi googu waral ci doomu aadama ak gàttañlu boo xam ne dina jóge ci moom gàttañlu ci digganteem ak boroomam gàttañlu ci digganteem ak boppam gàttañlu ci digganteem ak ay moroomam loolu coobare la yàlla subhanahu wa taala moo tax yàlla subhanahu wa taala bi mu taggee ñi nga xamante ni bi ñoom ñooy rafetal wa yujzi alladina ahsanu bil xusna yàlla subhanahu wa taala bi mu taggee ñi nga xam ne ñooy rafetal mooy alladina ahsanu al ihsan mooy martaba bi gën a kawe ginnaaw martabatul islam wal iman al ihsan moo gën a kawe terewul gaa yooyu mu tagg ci ixsaan boobu daf leen melal ne alladina yajtanibuuna kabaira al isma wal fawaxisha illa al lamam daf leen melal ne ñooñu ñooy gaa yi nga xam ne dañuy moytandiku bàkkaar yu mag yi di moytandiku ñaawteef yi lu dul al lamam lamam boobu borom xam-xam yi am ci ñaari fekkin ñenn ñu ne lamam day dellu ba léegi ci bàkkaar yu mag yi mooy istisna bi dafa nekk istisna muttasil mooy al lamam ba léegi ci bàkkaar yu mag yi la bokk waaye nañ koy defee loolu la yàlla subhanahu wa taala wax ci aaya boobu ne bokkul ak di def ay bàkkaar yu mag ci anam bu nekk beneen defin la mooy na kon ñi nga xam ni dañuy moytandiku bàkkaar yu mag yi ak ñaawteef yi lu dul lekk léeg ñu juum tàbbi ci benn bàkkaar bu mag daal di cay dellu duñ ca duñ ca delluwaat maanaam daal di dellu gannaaw duñ ca delluwaat kon taqasalu lay doon booba aaya yi noonu nga koy tekkee mooy ne xatta bàkkaar yu mag yi ñoom muccuñu ci waaye léeg-léeg nit ki faqastalu delluwaat dootu ci delluwaat benn yoon mel na comme ku doon dox ba yàgg nga dëgg ci xal teggi sa tànk doo ko ci tegaat ñenn muy tekki mooy mooy bàkkaar yu ndaw ñeneen ne lemam li muy tekki mooy bàkkaar yu ndaw yi bu boobaa istisna bi du nekk muttasil munqati lay doon wala ñenn ñi ne dafay dellu ci jëmmi al ism ci boppam muy bàkkaar bu boobaa li aaya bi di tekki mooy ña nga xam ne dañuy moytandiku bàkkaar yu mag yi ak ñaawteef yi lu dul ay bàkkaar yu ndaw loolu mënuñ caa mucc fokk ñu tàbbi ci kon ñaari tafsir yépp boo ko mën a tekkee mooy ne kon bàkkaar nit fokk mu tàbbi ci moo xam bu mag la walla yu ndaw la loolu mooy nammeelu borom bi subhanahu wa taala moo tax abdullah ibn abbas di tekki aaya boobu di wax ne gisuma lu gën a niroo ak lamam muy bàkkaar yu ndaw yooyu yàlla wax ne ñoom duñ ci mucc mu ne gisuma lu ko gën a niroo li ab li abu hurayra nett li jële ko ci ko wax ne inna allaha kataba ala ibni adam xaddahu min alzina أدرك ذلك لا محالة فزنا العين النظر وزنا اللسان المنطق والنفس تمنى وتشتهي والفرد يصدق ذلك كله أو أو يكذبه Abdullah bin Abbas mu ne gisuma lu gën a niroog lamam li Abdullah li Abi Hurayra nettali jële ko ci yonent bi alayhi salaatu salaam ne yàlla daggal na doomu aadama ab cëram ci njaaloo munu caa mucc foog mu tàbbi ci ndax bët yi dafay njaaloo njaaloom mooy xool naka nooy làmmiñ bi dafay njaaloo njaaloom mooy wax bu fekkee wax na loo xamante ni yellul loolu dafay daal daf koy daal tàbbal ci njaaloo loolu nga xam ne mooy jóge ci bët yi di jóge ci làmmiñ bi ci yeneen riwaayaat mu wax loxo yi wax gémmiñ gi wax tànk yi loolu min saxaa'iri dunub ci bàkkaar yu ndaw yi nga xamante nit ki mënu cee mucc ci la bokk mu ne nag waaye xol bi dafay ndëbët ngir def loolu ngir def lan li muy ndëbët di ci xëccu loolu mooy bakkaar bu mag bi mooy zina bi nga xam ne mooy zina al farj mooy li nga xam ne koy bi moo koy def moo tax mu ne wal farj yusaddiqu dalika kullahu aw yukadibuhu mu ne liy dëggal loolu mooy koy bi saa bu ko defee bu boobaa bakkaaru njaaloo bu mag bi tegu na ci kawam kon ñàkk gi doomu aadama ñàkk mën a mucc ci bàkkaar loolu coobare yàlla subhanahu la moo tax ci xadisu abi hurayra yonente bi alayhi salatu wasalaam doon wax ne bu ngeen dul woon di def ay njuumte yàlla subhanahu wa taala dina leen fi jële indi ñoo xam ne dañuy juum di ko jéggalu mu leen di jéggal loolu dafay dellu ci yàlla namm gu mu namm wane yërmandeem ak mbaaxam subhanahu wa taala moo tax mu melal doomu aadama ci anam boobu ndax bi mu fiy wàccee doomu aadama yi malaaka yi wax nañ ko ne ko ndax da nga wàcce koo xam ni daf lay mooy di jalgati maanaam di tuur deret di def naka sudul noonu te ñun fu ñu toll ci jaamono lañ dëkk kon bu dee dundal kaw suuf ak jaamu yàlla malaaka yi ñoo ko waroon gën a mën a taxawee yàlla xamal leen ne moom la mu namm ci loolu mbir la moo xam ne ñoom xamuñu ko day gën a teeñaat ci yàlla bàyyi fi iblis mu nekk ci biir jaam ñi di leen faqastal te bu ko nekkoon mu jële ko fi moo tax boroom xam-xam yi wax ne yàlla dund gi mu bind iblis bàyyi ko ci nit ñi mu jële woon ko fi xakim lu mu def rek daf ko def ci xikma ndax iblis bokk na ci xikam yi tax nekkam fi am solo mooy ab lay la day day fakkastal nga juum yàlla subhanahu wa taala la bu fi nekkul woon ñëpp nekk ci benn anam kenn du juum kon bu boobaa rawante du day des ku gën a mérité njërmande yàlla subhanahu wa taala ak ku ko mérité wul day des du feeñ bu baax kon il faut que mu am ay mbir yoo xamante ni fi'lan moo fi nekk di fakkastal jaam ñi di leen fitnaal di leen sonal mu nekk imtixaan mooy dafay nekk épreuve bu yàlla subhanahu wa taala teg ci ñoom ngir mu gën a mën a feeñal yërmandeem ci seen kaw loolu kon coobare borom bi subhanahu wa la bi mbir mi damee noonu ci la yàlla subhanahu wa ubbi ay bunti yërmandeem ak bunti njëggalam comme ci anam boobu la doomu aadama nekk kullu ibni aadam xata wa xayrul xataain at tawaabuun doomu adama yëpp dañuy juum waaye ñi gën ci ki gën ñi gën ci ñuy juum mooy ñi nga xam ne buñ juumee dañuy dellu ginnaaw ci seen njuumte yàlla subhanahu wa taala te jil leen ay buntam saa bu ñu juumee mu ñëw mu ci leen buntam ñu ñëw del si waat dugg ci bunt njéggalu borom jéggalu borom subhanahu wa taala moo tax yàlla subhanahu wa taala di wax naan wa inna rabbaka la du magfiratin linnaasi ala zulmihim sa borom mooy ki nga xam ne borom njéggal la ñeel nit ñi ci kaw tooñ yi ñuy tooñ façon tooñ yi ñuy tooñ yépp yàlla subhanahu wa taala daf leen koy jéggal muy waxaat ne inna allaha yuhibbu tawabina wa yuhibbu almutatahirin sa borom subhanahu wa taala ku bëgg ñiy tuub la ku bëgg itam ñi nga xam ne dañuy laabal seen bopp la moo xam laabu biir bi la wala laabu biti bi la ba léegi yàlla subhanahu wa taala di ñaax jullit ñi naan leen wa tuubu ila allahi jamian ayuha almuminuuna laallakum tuflixuun mu leen di ñaax naan gëm yàlla ngeen dellu ci seen borom ngir ngeen am texe kon gis nga ni yàlla subhanahu wa bi nga xamante ne dafa sàkk jaam ñi ci mata bi njuuta bi mënuñ cee mucc ci la leen ci jël bunti yërmandeem ak bunti njëggalam ñaax leen ci soññi leen ndax loolu moom mooy seen nature ba léegi yonent bi alayhi salaatu wax ci xadis boo xam ni al imam muslim moo ko solo jële ko ci abi dhar al xifaari radiallahu anhu muy wax ne yonent bi alayhi salaatu dafay nettali boromam subhanahu wa taala muy wax ne yaa ibaadi innakum tuxti'uuna billeyli wannahaar wa ana agfiru dunuba jamica fastagfiruni agfir lakum mu ne suñu borom subhaanahu wa taala dafay wax naan yéen jaam ñi da di juum guddi ak bëccëg ci njuum te ngeen dëkk kon jéggalu leen ma ma jéggal leen maanaam kon benn réalité la moo am nangu leen ko mooy da di juum guddi ak bëccëg leen ma ma jéggal leen ba léegi al imam Abu Daawud di solo ci xadis boo xam ne Abu Hurayra moo ko nettali mu ne dégg na yonente bi alayhi salatu wasalaam muy wax ne kaana rajulaani fi bani israil mutaaxiyayn axaduhuma yudnib wal axaru mujtahidun fi lcibada fa kaana laa yazaalu almujtahidu yara alaxira wala alaxara ala aldanbi fa yaqul aqsir fa wajadahu yowman ala danbin fa qaala lahu aqsir fa qaala xallini wa rabbi abuista alaya raqiba fa qaala wallahi laa yaghfiru laa yaghfiru allahu lak aw laa yadxilaka aljanna fa qabada allahu arwaxahuma fa ijtamaca cinda rabbi alalamin fa qaala li hada almujtahid akunta bi caalima aw ala ma fi yadi qaadira wa qaala lilmuznib idhab udxil aljanna birahmati wa qaala lilaxar idhabuu bihi ila annar qaala abu hurayra walladi nafsi biyadihi la taqallumun bi kalimatin aw baqat duniyaahu wa axira alimaam abi daawud xadis bi ñu nettal di ko jële ci abu hurayra mu ne yonente bi alayhi salatu salaam ne am na ci lu jiitu woon ci xeetu bani israil ñaari gaa yoo xam ni dañoo xaritoo woon nekk ay xarit daan ànd kenn ki ci ñoom ñaar daf daan góorgóorlu taxaw ci jaamu yàlla di moo ci ndi ko ay bàkkaar ki ci des di def ay bàkkaar kii góorgóorlu saa bu ñëwee fekk kii def bàkkaar ci bàkkaar daf naan ko bàyyi li ngay def saa bu ko gisee ci bàkkaar na ko bàyyi li ngay def benn bis mu fekk ko muy def bàkkaar mu ne ko bàyyi li ngay def waa ji na ko di jugal ci sama digganteeg sama boroom ndax yàlla dalaa yebal ngir nga may sàmm di ma wattu waaye nga xam ne moo doon góorgóorlu daal di juum njuumte lu rëy ni mu juumee mooy def na ko maa ngi wàcc yàlla ne yàlla du la jéggal wala du la dugal aljanna foofu la juumee li mu ko doon digal yépp ak di ko tere juumul woon mais bi mu dogoo ci ne yàlla du ko jéggal ci la juum moo tax yonente bi alayhi salatu wasalaam ne man qaala fasada annaas ku ne nit ñi yàqu nañ moo leen gën a yàqu man qaala afsada annaas fa huwa afsaduhum moo leen gën a yàqu ba mu ne nit ñi yàqu nañ alku nañ rek mooy yàlla tëj na ci ñoom buntu njéggalam wala buntu yërmandeem mënatuñoo baax kenn mënatu leen récupérer saa boo ko waxee ci nit ñi mooy yaa leen gën a alku ci beneen jàngin fa huwa afsaduhum wala fa huwa afsadahum mooy moo leen yàq moom moo leen yàq mooy loolu la leen jàppal loolu la leen foogal yàlla subhaanahu wa faat leen ñu dajaloo ñu daje fa yàlla subhaanahu wa taala yàlla subhaanahu wa taala daal di wax waa ji nga xam ne moo dogu woon ne mbokkam moomu daan def bàkkaar yàlla du la jégal yàlla ne ko ndax da ngaa xam samay mbir lépp ba jeexal ko ba ngay dogu ci man naan du ma ko jégal wala ndax li nga xam ne man maa ko moom ci njërmande ak ci njégal dafa nekk ci sa loxo da ci am benn sañ-sañ ba tax ngay dogu ci ne du ma ko jégal ci la yàlla subhanahu wa taala waxee waaye di daan def bàkkaar na ko demal nga dugg aljanna ci sama yërmande bi rahmati parce que rahmatullahi wasiat kulla shay yërmande yàlla subhanahu wa taala dépassé na lu mu mën a doon loo ci dugal rek mu xaj si mu daal di wax waaye ji nga xam ne moo doon dogu ci ne du yàlla du jéggal waa jële mu ne ko yóbbu leen ko safara moo tax Abu Hurayra ne maa ngi waat ci ki nga xam ne sama bakkan mi ngi ci loxoom ne benn wax bu mu wax moom moo alak addunaam alak allaaxiram moo yàq àddunaam yàq allaaxiram muy benn baat bu mu wax ne ko maa ngi waat ne yàlla du la jéggal moo tax kon bunt bi bunt bu yaatu la boo xam ni nit ki waru cee dak daggal wala mu ciy dog yaakaaram benn yoon ci jaam ñi ba léegi Tirmidi di nettali ci xadis boo xam ne Anas ibn Malik moo ko soloo jële ko si yonente bi alayhi salaatu wasalaam mu ne yàlla subhanahu wa taala dafay wax ne yabna aadam innaka ma daawtani wa rajawtani gafartu laka ala ma kaana minka wala ubaali yabna aadam law balagat dunubuka anaana alsamaai summa stagfartani gafartu laka ala ma kaana minka wala ubaali يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا أتيتك بقرابها مغفرة ba nga jéggalu ma dinaa la jéggal ak loo mën a def te du ma ci xool dara yow doomu aadama boo ma dikkoon nga dikkal ma indaale ci bàkkaar loo xam ne fees na suuf te bokkaalewloo ma ak dara dinaa la dikkee ci lu toll noonu ci yërmande ci njéggal xadis boobu xadis bu màgg la bokk ci xadis yi gën a yaatu ci ahadisu raja muy yaakaar boo xam ne jaam bi war na ko yaakaar njëggalu yàlla subhanahu wa taala ak yërmandeem mu des ne bu fekkee dañuy wax ne maa daawte war a rajawte nii muy li ñu tuddee ar raja muy yaakaar bu nit war a yaakaar ci lañuy ñuy wax ndax liy ñëw lépp ci buntu raja lay dug dugg war nañ ti mit leeral ne raja bi nga xam ne fii mawdiihi muy rajaa yaakaar bi nga xam ne dafa nekk ci anam war a nekkee fokk mu waral ci ki nga xam ne moom moo ko def mu ragal ndax lu muy yaakaar mooy dafay yaakaar yàlla subhanahu wa taala nangul ko ay jëfam yu baax te buñ nee jëf yu baax yi ngay yaakaar yàlla mu nangul la ko mooy jëf yu baax yi mooy li ngay def ci ay pratique ak li ngay ko ci ay bàkkaar ñu bëri dañoo juum ci ni ñuy déggee al amalu saaliha yu baax dañ yaakaar al amalu saaliha buñ ko waxee rek mooy lu mel ne julli woor ak màkk asaka ak yooyu mais xatta bàyyi bi ngay bàyyi bàkkaar yi loolu dafay dugg ci al amalu saaliha ay jëf yu baax la loolu ngay taxaw ci ay jëf yu baax di ci séntu sa borom subhanahu wa mu nangul la ko fay la ci yokkal la sax ci lim la waroon fay dafay làmboo loo xam ne ay jëf la ñuy def ak ay bàyyi yoo xam ne da loo xam ne sa borom subhanahu wa daf la ko tere leneen li ngay yaakaar yàlla subhanahu wa taala mooy li nga xamante ni gàttañ lu nga ci ci bàkkaar yoo xam ne def nga ko wala ci loo xam ne sant na la ko nga waroon caa taxaw taxawuloo ca na nga ca waroon taxawee loolu yépp ay bàkkaar la ngay am yaakaar ci sa borom subhanahu wa taala mu jéggal la ko ngay am yaakaar sa borom subhanahu wa mu jéggal ko léegi bu fekkee loolu da nga koy yaakaar ci sa borom di ko séentu yaakaar boo xam ne bu dëggu la ci yow war ngaa tiit ci loolu nga bañ koo am ndax képp ku yaakaar dara di ko séntu séntu boobu nga koy séntu dafa war a ànd ak ragal koo ñàkk muy tiit pour ñàkk loolu parce que buñ nee rajaa rek yaakaar mooy loo xam tegoogul sa loxo loolu séntu la léegi bu boobaa wala ci yow benn tiit boo xam ne duñ ko tiit pour ñàkk loolu nga xam ne yaa ngi koy séntu ci sa borom subhanahu wa taala moo tax al imam ibn abi dunya dafay nettali ay athar di ko jële ci salaf ci téeram boobu di al wajal wa tawassuq min al amal mu indi ay asaar yu am solo benn bi al imam sufyan ibni said althawri moo koy nettali di ko jële ci muslim ibni yasaar muy wax ne man raja cheyan talabahu wa man xaafa cheyan haraba minhu al imam muslim ibni yasaar dafay wax ne képp ku yaakaar dara di nga ko uti ji doo toog rek fi nga toog ni mi ngi ñëw da ngay jug dem uti ji ko waaye képp ku ragal dara dangay daw balaa mu la fay fekk mu ne maa adri ma xasbu rajaa'i imri'in lahu balaaun aw arada lahu balaaun lam yasbir alayhi lima yarju wala adri ma xasbu xawfi imri'in aradat lahu shahwatun lam yada'ha lima yaxsha limaam muslim mu ne mooy muslim ibni yasaar nekkul muslim ibni alxajjaaj muy wax ne xaw ma lan mooy yaakaaru waajoo xam ne ab balaa da koo gaar muñul ci kaw balaa boobu ngir li muy yaakaar mu ne kooku xaw ma lan mooy lan mooy yaakaaram bu ne yaakaar na nit man xaw ma lan mooy yaakaaram ndax li muy muñ li ko ci war a mën a encouragé ba tax mu mën koo muñ mooy am na lu muy yaakaar muñ bi muy muñ ci ay natt yu ko yàlla di teg ak tamit muñ bi muy muñ ci di topp yàlla ci di def li mu ko sant ak di bàyyi li mu ko tere yooyu yëpp ñetti xaajoo yëpp ay xaajo muñ la yoo xam ne liy tax nit ki am ci kàttan mooy yaakaar bi mu yaakaar ëllëg yàlla subhanahu wa taala ko lu gën li nga xam ne moom lay muñ tey mu ne xaw ma tamit luy muñu luy yaakaaru waajoo xam ne ab bànneex da ko gaar mu ne bàyyiwul bànneex boobu ngir li mu ragal mu ne xaw ma lan mooy ragalu waajoo xam ni ab bànneex gaar na ko bàyyiwul bànneex ba ngir la muy ragal boo gisee li mu wax noonu da ko sukkandiku ci xadis bi yonente bi alayhi salatu salaam wax ne xuffat aljannatu bilmakaarih wa xuffat annaaru bilshahawaat aljanna dañ koo wërale ak yi nga xam ne dafay metti ci bakkanu doomu aadama bi safara tam dañ koo wërale ak yi nga xam ne dafay neex ci bakkanu doomu adama mooy ne kon nit ki bu bëggee aljanna yaakaar aljanna ya nga xamante ni bi moom moo wër aljanna jooju ngir mu àgg sax la yi metti metti ci bakkanam dina ko muñ fexe ba jégg ci jaar ci pour mën a tàbbi ci biir aljanna jooju kon métit yooyu li koy taxa a mën a muñ mooy la muy séentu ci fayu borom bi subhaanahu wa taala bu ëllëgee kon loolu mooy raja rajaa dafa am lu muy def ci nit bu fekkee am na lu muy séentu daf ko war a gën a encouragé mu gën a góorgóorlu gën a muñ parce que am na lu muy séntu bu ëllëgee moo tax raja nekk lu am solo ci nit naka noonu tamit xawfu bi bu dee dëgg la ci moom safara li ko wër ci ay mbir li muy neex neex yépp leer na ko ni bu ko toppee ci biir safara sa la jëm da koy moytandiku ndax ragal gi mu ragal safara soosu kon loolu moom moo tax xawf ak rajaa nekk lu am solo ci nit ba léegi tamit alxasan al basri di waxaat ci téere boobu di alwajal bu ibni abi dunya alxasan wax ne inna qawman alhamathum amaani almaghfira xatta xaraju min addunya wa laysat lahum xasana yaqul inni uxsinu aldanna bi rabbi kadaba walaw axsana aldanna bi rabbihi la axsana alamal alxasan albasri dafay wax ne am na nit ñoo xam ni ay mbëbët moo leen jàppa jàppa jàpp ba bi ñuy génn àdduna yóbbaale wuñ dara ci ay jëf yu baax waxul yaakaar daf ne mbëbët dina ñëw ci kanam ñu leeral diggante farq diggante bi nekk ci mbëbët ak yaakaar yaakaar ak mbëbët bokkul mbëbët mooy loo xam nit ki day di ko duy ci xel mi di wax rek deful benn sabab bu war a tax loolu am loolu mooy mbëbët mu ne na ñoo xam ne mbëbët moo leen topp ci àdduna topp bi ñu génn àdduna yóbbuñ dara ci jëf yu baax mu ne kenn si ñoom dafay wax ne damaa rafet njort ci yàlla mu ne waxul dëgg bu fekkoon rafet na njort ci yàlla dina rafetal leen di wax ne leen góorgóorlu leen góorgóorlu leen moytandiku leen moytandiku leen bu mbir mi nekkee comme ni ngeen koy séentoo mooy yàlla def ci jàppandal mu ne boo li ngeen doon góor góorlu ak li ngeen doon moytandiku nekk ngëneel ngir yéen nekk yokkute ngir yéen ndax fekk ne jotoon ngeen jël seen i matuwaay bu fekkente ni mbir mi gën naa tar ni ngeen ko doon séentoo mu ne ngeen du ngeen ŋàññi seen bopp du ngeen ŋàññi seen bopp di yedd seen bopp naan su ma yëgoon gën a góorgóorlu mu ne kon góorgóorlu leen moytandiku la moytandiku leen boo seetloo liñ doon wax sànq ci différence bi nekk ci kii yaakaar borom bi subhanahu wa taala nangul ko ay jëfam jégal ko ay bàkkaar ak ki nga xamante ni dafay mbébét rek toog di mbébét di di rêve ñaari ñooñu lan mooy seen différence mooy ki nga xamante ni dafay yaakaar dafay góor góorgóorlu ci def ay asbaab di def kémtalaay kàttanam ngir am mbir moomu nga xam ne moom lay yaakaar ak ngir moytandiku lépp loo xam ne dafay dox digganteem ak am mbir moomu le moo tax yàlla subhanahu wa taala di wax ne inna alladina amanu walladina haajaru wa jahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatallah yàlla subhanahu wa taala ni mu wax ne ñoom ñoo yaakaar yërmandeem ëllëg nee na mooy ñi ko gëm di hijra ci yoonu yàlla di jihaad ci yoonu yàlla boole jëf yooyu yépp ba pare wëlbatiku nag di yaakaar yërmande yàlla pas toog la le bras ne damay yaakaar yërmande yàlla moo tax ibnul qayim dafay wax ne fatawaa fatawaa subhanahu bisaata raja illa an haula mu ne yàlla subhanahu wa dafa lem sijaada wala basangu yaakaar lu dul ñeel gaa yi mu ne ñoom rek la tàllal basangu yaakaar ne seen yaakaar lu dëggu la keneen ku dul ñoom yaakaar bi ngay wax du yaakaar ñi nga xamante ni nag dañoo wooru ñoom dañuy wax ne ñu yaakaar yàlla dëgg mooy ñi nga xam ne dañuy nuur guddeeg bëccëg ci ay bakkaar te naan yàlla dinañu jéggal waaye loolu xaqiqatan nekkul yaakaar loolu njuumte lu rëy la loo xamante ni seytaane moo ciy tàbbal ay nit ndax nit ki bu fekkee dafa yaakaar yàlla xaqiqatan gëm ci xolam dëgg-dëgg gëm fay yi ko borom bi subhanahu wa taala ak njëggal lam ko dig mu def ko ci ci biir xolam mu nekk lu wér ci moom mu jëmmal ci ay bëtam njëggalu borom bi subhanahu ak fayam bu ëllëgee kooku foog mu jug góorgóorlu kooku mën nga toog te naan damaa yaakaar ndax li nga xamante ni bi mooy alaamatu raja comme ni ko ibnul qayim di waxee mooy raja bi nga xam mooy raja bu wér mooy an yaxaafa fawta aljannati wa dahaba xadihi minha bi tarki ma yaxaafu an yaxuula baynahu wa bayna duxuliha ki yaakaar dëgg-dëgg mooy ki nga xam ne dafay tiit fu mu toll naan soo moytuwul aljanna dinaa dina ma rëcc soo moytuwul njëggalu yàlla yërmande yàlla bu ëllëgee dina ma rëcc soo moytuwul def naa loo xamante ni dina dox sama digganteeg mbir moom ma am ndax yaakaar bu tar bi mu ko yaakaar ndax yaakaar bu tar bi nga xam ne daf ko yaakaar moo tax boo gisee mbir mbiru ku yaakaar di jëf ak ki nga xamante ni dafay ndëbët nga bëgg koo misaal mën nga koo gën a misaal ci ñaar ñi nga xam ne dañuy dugg examen ñu jox leen une semaine masalan pour ñu réviser kenn ki di réviser di góorgóorlu lu ci des toog ne man am naa yaakaar ne dinaa dinaa réussir dinaa jàll ñu dem ba bis ba jot ñu jox leen ay feuille ne nañ bind kii lu mu jàngoon mu tàmbali di bind di góorlu baat bu mu bind sax yaakaar ne xëy na du nii mu fomp ko bindaat ko ba mu gën a baax ngir ay notam gën a baax ki ci des moom di jaxase rek te naan am naa yaakaar ni prof bi dina ma may ay not bu ëllëgee bu échoué bu bu mu yedd ku dul boppam beneen misaal bi ko Ibnul Qayyim jox ci tariqul ni ba léegi mooy waa joo xam ne dafay dem gis ab as ndaw mu bëgg ko nee na mu dem ci kër ga kër ndaw sa ñaan ko ne leen dama bëggoon seen doom ñooñ ne ko mën nañ la koo may ñëwul bis sàngam ñu may la ko nee na bis ba jot waa ji dem ci ay sën ak ay mbalit yi gën a salte ci dëkk ba mu dem fa raatal ca jaxase yaram bi ba mu tilim taq taq taq ba kenn mënu koo xool mu ne li mu waroon def bu doon yaakaar ne dëgg ñu may ko ndaw si dafa waroon góor góorgóorlu ci bépp sabab boo xam ne bu ko defee waa kër ga gën a sawar ci may ko ko mu def ko ngir tiit ci ñu xañ ko ko ndax comme que bëgg na ko te bëgg na cee jot def na ci yaakaaram dafa war a moytandiku ñu xañ ko ko ci defaru parfum wu toilette yu def sol ay yére yu yu baax yoo xam ne bu ñëwee ci kër ga dañ koy gën a jox cër may ko seen doom ci xol bu dal nee na waaja deful loolu mu dem taqal yaram bi ay mbalit ay salte lu bon lu ne mu jël ko tay tay ko ci yaram bi ñëw ci kër ga bokk ay loxoom te naan am na yaakaar ni dañ ma ko may ndax ñoo ma ko digoon nee na bu agsee rek yat ya dal ñu ne ko génnal ci biti nee naka noonu jaam bi yàlla subhanahu wa taala dig ay fayam ak xéewalam ak aljanaam da war a defar sa bopp fii ci àdduna yéwénal sa bopp ba bu ëllëgee boo présenté woo ñëw ci ëtt yowmal qiyam yàlla subhanahu wa taala gis ci yow lu tax mu gën a feddali ci yow yi si yërmandeem ak njëggalam daal di lay tàbbal ci ay xéewalam te néewuk ragal googu nga xam dina nekk ci nit dafay dellu ci néew boo xamante ni ñàkk xam yàllaam néew na ko ndax nit lu mu gën a xam yàlla subhanahu wa di gën a am ragal googu la lu xam yàllaam muy gën a woru woru loolu xurur lañ koy tuddee mooy di woru ci mbiru yàlla subhanahu wa taala moo tax yonente bi alayhi salatu wasalaam doon wax naan inni aalamukum billah wa ashaddukum lahu xashya man maa leen gën a xam yàlla waaye maa leen gën a am ragal yàlla maa leen gën a tar ragal yàlla waxul sax inni axshaakum lillah waxul axsha pourtant axsha dañ koy binaa ci afal mais daf ne ashaddukum lahu xashya ashaddu la jëfandikoo pour gën a feddali ni mu leen gën a taree ragal yàlla subhanahu wa taala ci wane ne kon nit ki lu xam-xamam gën a yokk ci digganteem ak boroomam ragal gum koy ragal di gën a yokk waru ci yàlla subhaanahu wa taala ak toog di mbëbët loolu néew xam-xam moo koy waral ci nit moo tax mu doon waxaat ba léegi ci beneen lafz naan inni axwafukum lillah wa alamukum li ma attaqi man maa leen gën a xam wala bi ma attaqi man maa leen gën a xam yàlla maa leen gën a ragal yàlla subhaanahu wa taala gën leen a xam itam li may moytandiku li may wattandiku moo tax moom sallallahu alayhi wa daan na julli taxaw di julli di naafila di jooy jooy di ko jàpp muy muy yëkkat di xéexat ba boo ko déggee da ngay yaakaar benn cin la ñu teg def ci ndox muy bax ni muy jërëjëree bruit boobu muy def dënn bi noonu la daan def bu daan jooy ndax ragal gu mu ragal yàlla subhanahu wa taala moo tax yàlla subhanahu wa taala day wax naan innama yaxsha allah min ibadihi al ulama nga xamante ni ñoom ñoo ragal yàlla dëgg ci jaamam ñi mooy ñi xam nit ki bu xamee rek ragal yàllaam dafay gën a yokk nit ki lu xam-xamam gën a yokk ci digganteem ak boroomam ragal yàllaam di gën a yokk moo tax Abdullah ibn Mas'ud doon wax naan kafa bi xashiyatillahi ilman di wax ne ragal yàlla doy na xam-xam ragal rek doy na xam-xam ndax nit boo xoolee sa mbir du génn ñaari anam imma nit ki nekk ku yàlla baaxee mu nekk ci njub deful ay bàkkaar tàdduwul ci ay bàkkaar wala mu nekk koo xam ne dafa tàbbi ci ay bàkkaar dafa juum di def ay bàkkaar bu dee jamono bi mu defee bàkkaar wala jamono bi muy def bàkkaar war naa tiit li tax mu war a tiit ñetti mbir la benn bi mooy li muy def luñ ko tere la lii dañ koo xaraamal dañ koo tere mu xam ne yàlla subhanahu wa moo ko tere ñaareel bi mu leer ko ne yàlla subhanahu wa taala bi mu dikk ay dóor ak ay daan ci ku def bàkkaar bi dëgg la joo xam ne kenn du ci sikki sàkk nekkul ay lu yàlla dige la mu nekk dëgg te lu mu am kàttan la ci def ko loolu bu ko xamee kon war naa ragal buy def loola yàlla tere beneen bi ci des mooy bii bi nga xam ne mooy sànk ñu bari mën nañoo xam ñaar yi waaye ñetteel bi moo leen di sànq te seytaane moo ciy laxasu mooy buntu tuub tuub du lu du alal ju nekk ci loxoom joo xam ne moo ko ci poosam joo xam ne moo ko moom tuub mbiru yàlla la dara wóoru ko ba xam bu fëggee buntu tuub yàlla dina ko ko ci kon warul sukkandiku ci tuub ba tax muy song bàkkaar yi di ko def ni mu ko soobee ci ne dinaa tuub kon war na ragal ci bàkkaar bi muy def ñaaw ñaawteef la ñaareel bi mooy yàlla fu wa taala dig yim ci dig dëgg la ñetteel bi mooy dara waru ko ba xam bu fekkee buntu tuub yàlla dina ko ko ci tijjil kon war naa tiit ndax nit ñi li tax ñuy faral di def bàkkaar mooy léeg-léeg ñàkk xam dëgg-dëgg dayoo bàkkaar bi ñàkk xam dëgg-dëgg yàqute bi nga xam ne bàkkaar bi dina ko def ci ci ci ci àdduna nit ki ak ci àllaaxiram léeg-léeg ñu bari loolu moo leen di sànq ci bàkkaar moo tax yàlla subhana taala wa annahu man amila minkum suan bi jahalatin yàlla subhana taala li mu wax ne képp ku def ci yéen ñaawteef képp ku def ci yéen lu bon ci ñàkk xam borom xam-xam yi dañ ko tekki benn taabi yi daf ne dafa laaj aaya boobu saxaaba yi nee na ñoom ñëpp ñu ne ko kullu man asa allah fa huwa jahil nee na te ma laaj saxaaba yépp ne leen aaya boobu lu mbiram ñu ne ko képp ku mooy yàlla jaahil nga jaahil nga du caagante ni xamul ne li bàkkaar la bi jahaalatin tegtalawul ne dafa xamul ne li bàkkaar la parce que bu xamuloon ne bàkkaar la yàlla du ko ko jàppee ndax ku xamul dara yàlla subhanahu wa taala jéggal ko mais bi jahaalatin jahl bi mi ngi nekk ci ba mu gisee ni lii yàlla tere la mu xam ko ba mu leer ko ba noppi mu koy def la ca nekk ci yàqute dëgg dëgg dëgg dëgg loolu la réere xamu ko bu ko xamoon ni mu ko war a xamee dara waru koo jaral ci àdduna muy def loolu dara waru ko koo jaral kon bu ko dara jaralee ci àdduna muy def loolu rek ak la ca nekk ci ay conséquences mooy dafa xamul ku réer la beneen bi ci des mooy léeg-léeg nit ñi li leen di yóbbuwaat ci bàkkaar mën nañoo xam mbir yooyu mais li leen ci yóbbu mooy sukkandiku ci tuub sukkandiku ci tuub ci ne après da ngay tuub loolu doomu aadama ñu ci bari seytaane foofu la leen di sànke moo tax buntu boobu buntu bu doy waar la moo tax nit ki bu xamee bàkkaar ne lii lu yàlla tere la xam itam dikk yi ci yàlla dikk ne lii dëgg la joo xam ne amul lu ñuy sikk ñaareel bi ci des mooy wóoluwul boppam ci digganteem ak tuub kooku dina moytandiku ay bàkkaar dina lu ci sori ko beneen anam bi ci des mooy mu nekk ku ku mucc ci bàkkaar nekk ku jub kon imma mu nekk koo xamante ni dafay tàbbi ci bàkkaar nekk ku euh, jum ci buntu bàkkaar war na am xawf war na tiit ci ñetti mbir yooyu beneen bi ci des mooy bu ko yàlla baaxee mu mucc ci bàkkaar nekk ku jub war na tiit muy tuub ba léegi warul ne man du ma tuub ndax defuma dara dafa war di tuub di góorgóorlu yonente bi alayhi salatu wasalaam yàlla da ko jégal ay bàkkaaram yu jiitu ak yu mujj te terewul da daan tuub daan wax naan yéen doomu aadama yi day leen tuub di jégalu seen borom man dinaa tuub ci bis bi téeméeri yoon moom daan na tuub ci bis bi téeméeri yoon sallallahu alayhi wa sallam te yàlla gafara lahu ma taqaddama min dambihi wa ma taaxar salawatullahi wa salaamuhu alayhi li tax nit ki war a tuub mooy alqulub bayna usbaaini min asaabii arrahman yuqallibuha kayfa yasha mooy ne xol yi dafa nekk ci diggante ñaari baaraam ci baaraami yàlla yi subhanahu wa taala moo koy wëlbati ni ko soobee moo tax yonente bi alayhi salatu daan bëri di wax ne allahuma yaa musarrifal su qulub isrif qalbi ala taatik yow yàlla muy wëlbati xol yi wëlbatil sama xol ci topp la daan na bëri suy waat naan laa wa muqallibal laa wa muqallibal qulub lu bari ci ay waatam danañ wax naan déedéet maa ngi koy jiñ ci ki nga xam ne mooy wëlbati xol yi maa ngi koy jiñ ci ki nga xam ne mooy wëlbati xol yi wëlbatiku googu xol yi di walbatiku moo tax nit ki warta wóolu boppam warta naagu même bu nekkee ci istiqaama dafa war di di gis ne ba léegi dafa gàttañ lu mën a toll moo tax lenn ci as salaf daan wax naan xol ni muy wëlbatikoo moo gën a tar cin boo xam ne dañ caa def ndox muy bax ba bax bi tar nee na ni muy wëlbatikoo xol moo ko gën a garaaw ni muy wëlbatikoo kenn ci ñoom ci as salaf daan wax naan wëlbatiku xol moo gën a garaaw walbatiku nga jël benn donq donq ginaar nga teg ko ci suuf soo xam ni dara newu fa ni ko ngelaw li di du wëlbatee muy wëlbatiku di jaaxaan ak a dëpp nee na noonu donq ba di wëlbatikoo xol moo ko gën a garaaw ni muy wëlbatikoo comme ko xol noonu la wëlbatikoo nit ci wartu wóolu xolam dafa war di tuub di moytandiku ngir yàlla subhana taala di gën a saxal xolam boobu la ci kaw dëgg ki nga xam ne moo jiitu mooy ki ya kooku tuubam mi ngi dellu ci xam ji mu xam kàttanu yàlla subhanahu wa taala ci fay képp ku def bàkkaar mu fay la xam googu mu ko xam dëggal googu mu ko dëggal ak ci ni tuub ci loxo yàlla la nekk moo koy jox ku ko soob loolu moom moo tax muy tiit ba mu defee bàkkaar muy tiit ci boppam ki nga xam ne deful bàkkaar mi ngi ci njub kooku mu ngi tiit ci xam ji mu xam ne yàlla subhanahu wa taala mooy dogal lu ko soob mooy ki nga xam ne mooy def lu ko soob mooy wëlbati xolu jaam ñi xam googu mu ko xam mu leer ko moo tax muy tuub fu mu toll di jéggalu borom subhanahu wa taala ak di tiit ci boppam euh, li nga xam ne moom mooy mu kaffiraatu zunub mu yi nga xamante ne bi mooy far ay bakkaar ginnaaw bu ñu defee tuuti benn bàyyiloo xel tuuti ci buntu raja mooy raja warta nekk loo xam ne dafay naaguloo nit ki ndax comme ni ko Ibnul Qayyim di waxee ne ay nit dañoo ñëw rek ñu laxasu ci ahadithu raja ak ayat yi nga xam ñu ñoo ñëw ci wàllu raja fàtte ne yàlla subhanahu wa taala chaque fois dafay wax nabbi ibadi anni ana alghafur rahim wa anna adabi huwa aladabu shadid yàlla subhanahu wa taala bu waxee ne ku bëri yërmande la fil xaalib da cay teg itam ne moom ku tar mbugal la pour nga boole ñaari mbir yi ni ngay yaakaaree ak di foog noonu tamit nga koy ragale ak di moytandiku mais nga bañ a naagu ndax boo moyee ci rajaa rek da ngay naagu te loolu bu boobaa daf lay yàqal sa diine dañuy wax ci mukaffiratu zunub ne boo am na ci yoo xam ne lu ñu tudd wax lu mel ne istigfaaraat yi nga xam da koy def ak azkaar yi nga xam ne da koy def yàlla di ko ci faral ay bàkkaaram am ci loo xam ne lu muy jëf la lu mel ne li mbokk bi wax léegi ne wa atbii sayiata alxasana tamxuha loolu donte am la mais am na ci loo xamante ne ay jëf la lu mel ne alsalawaatul xamsa loolu nit ki bu ko defee yàlla subhana taala ko ci faral ay bàkkaaram mooy kon am na ci loo xam ne mukaffira yoo xam ne euh, qawliya la am ci loo xamante ne fi'liya la bu dee bàkkaar buntu al mukaffiraat mu xam tamit anwaau dunub ibnul qayim istitraat na ci lu yaatoo yaatu ci igaasatul lahsan di wax ci façon bakkaar yi bay wax ci bàkkaar yi bàkkaar yoo xam ne bàkkaar yu niroog yàlla la mooy nit ki di def bàkkaar ci niroo bu mu nirooloog yàlla te loolu waru ko mu def ci bakkaar am ci yoo xamante ne niroo bu mu nirooloog bàyyi ma yi am ci loo xam ne bàkkaar boo xamante ne dafa niroog doomu aadama façon bàkkaar yu bëri lay la ciy wax mais ñun façon biñ ciy wax fii beneen anam la muy ci jëmmi bàkkaar bi ci boppam pas melokaan bi nga xam ne moom mooy nekk ci nit ki mais melo bi nekk ci bàkkaar bi yarhamukallah loolu dina baax nit ki xam ko ndax bu ko xamee dina ko dimbali ci bàkkaar bi mu def mu mën koo tànnal ab mu kaffir boo xam ne moom mooy gën a méngoo ak moom maanaam mu mën a tànnal bàkkaar bi mu def ci jëf yi nga xam ne ñooy fomp ay bàkkaar mu mën ko cee tànnal jëf joo xam ne dina méngoo ak moom pour gën a am kàttan ci dindi ko ndax buntu boobu tamit fiq la laaj fiq la laaj boo xam nit ki dina ko jëfandikoo ndax léeg-léeg ci bàkkaar la ci am loo xamante ni pour far ko dafa am mbir yu bëri yu muy laaj bu ko nit ki xamulee gàttañ lu googu mën na waral ci moom bàkkaar bi bu deñul lépp tamit dina des ay traces yoo xam day des ci moom ba léegi yoo xam ne waroon na koo dindi nga gis ci xadis anas ibni malik yonente bi alayhi salatu wasalam di wax ni az-zulmu talaata muy wax ni tooñ ñetti tooñ la fa zulmun laa yaxfiruhu llah wa zulmun yaxfiru mu ne yàlla subhanahu wa taala am na ci tooñ goo xam ne du ko jéggale ak tooñ goo xam ne daf koy jéggale wa zulmun la yatrukuhu ak tooñ goo xam ne du ko neenal ñetti tooñ la nit ki di tooñ tooñ goo xam ne yàlla du ko jéggale tooñ goo xam ne yàlla daf koy jéggale ak tooñ goo xam ne yàlla du ko neenal mu ne fa amma zulmu alladi la yaxfiruhu llah fa shirk tooñ gi nga xam ne yàlla subhanahu wa du ko jéggale mooy bokkaale loolu liñ ci namm mooy bu fekkee nit ki da ko faatuwaale loolu di ñëw si kanam ndax inna shirka la zulmun azim shirk tooñ la boo xam ne yàlla subhanahu wa taala du ko jéggal boo ko nit ki faatuwaale indi ko yawmal qiyaam yàlla du ko ko jéggal beneen tooñ bi nga xam ne yàlla subhanahu wa taala daf koy jéggalee mooy fa zulmu ibaadi anfusihim fi ma baynahum la fa zulmu al abdi nafsahu fa zulmu al abdi nafsahum anfusahum maanaam zulmu al ibaad anfusahum wa fi ma baynahum wa bayna rabbihim tooñ bi nga xam ne yàlla subhanahu wa taala dina ko jéggalee mooy tooñ bi nga xam ne nit ñi dañ koy tooñ seen bopp ndax yaa ayuha nnaas innama baxyukum ala ki dafa war a xam ne tooñ gi muy tooñ ak mbew gi muy mbew ci kawam lay këpp man amila saalihan fa li nafsihi wa man asaa fa alayha ki li ngay tooñ ci sa kaw lay këpp tooñ gi ak tooñ gi muy ci digganteem ak boromam lépp ci kawam lay këpp tooñ googu yàlla dina ko jéggale tooñ gi nga xam ne yàlla subhanahu wa taala du ko neenal mooy tooñ gi nga xam ne nit ki daf koy tooñ moromu nitam yàlla du ko neenal mukk ba baa muy jëlal kii àqam ci kii nga xam ne moom moo ko tooñ kon tooñ googu yàlla du ko neenal tooñ gi nga xam ne moom la nit di tooñ boroomam digganteem ak boroomam mu ciy tooñ nit sax mënta tooñ boroomam mais tooñ gi muy tooñ digganteem ak boroomam ñaari xaaj la lenn li ñu koy tuddee ay kadair mooy ay bàkkaar yu màgg lenn li ñu ñu koy tuddee sagair mooy ay bàkkaar yu ndaw baatu ndaw boobu dinañ ci taxaw tuuti ci kanam alxaafid ibn alqayim dafay wax ne qad dalla alquranu walsunnatu wa ijmacu alsaxaabati waltaabiina baadahum wal a'immati ala anna min adunubi kabair wa sagair ibn alqayim dafay wax ne alquran tegtale na ak sunna tegtale na ak loo xam ne ci dëppoo ak ñu ñëw ci seen ginnaaw ñu ne bàkkaar ñaari xaaj la ay kabair ak ay sagair yoo xam ne yu màgg la ak yoo xam ne yu ndaw la am na ci ñoo xam ne dañoo génn ci xaajale boobu mais loolu shuzuz lañ koy tuddee shuzuz mooy ñoo xam ne dañoo génn li nga xam ne mooy ijmaa mooy ñi nga xam ne gis ne bàkkaar yépp ay kabair la yàlla subhana taala mi ngi wax naan in tajtanibu kabaira ma tunhawna anhu nukaffiru ankum sayiatikum bu ngeen moytandikoo bàkkaar yu màgg yi ñu leen tere dinañ leen jéggal seen i bàkkaar yan bàkkaar boobaa moytandiku nga yu mag yi kon yu ndaw rek a fi mën a nekk yàlla dina la ko jéggal ndax boo moytandikoo yu mag yu ndaw fii res yàlla subhana taala daf la koy jéggal jéggal la ko ci ndax ay asbaab la wala bi biduni asbaab loolu ku mel ne ibn ibn xajar mi ngi ciy nettali benn istishkaal bu ci alqurtubi di istishkaal ci alfath bii dafay wax ne bi daf jëf yi dafay far ay bàkkaar te yàlla ne boo moytandikoo jëf yu baax yi boo moytandikoo bàkkaar yu mag yi ma ma jéggal la say bàkkaar kon jëf yooyu di far lan lay farati ndax yaa ngóorgóorlu di moytandiku muy wax ne jëf yu baax yooyu ngay jëf dafa dafay dugg ci cadre moytandiku ay bàkkaar yu mag ndax boo ko bàyyi woon mu nekk ay bàkkaar yu mag lu mel ne julli dafay far bàkkaar tayib nga ne yan bàkkaar lay far parce que mooy moytandiku naa def ma ay bàkkaar ñu ne la boo bàyyi woon julli tey mu nekk kabira kon def bi mu ko def mooy tundiku bàkkaar la loolu benn tawjih la beneen tawjih bi ci des mooy waxaat ba léegi ne euh, yàlla li mu wax ci aaya bi mooy jéggal bu yaatu bi nga xam ni dafay nekk li ko dalee diggante nit ki ba muy góor góorlu ci giine mooy ba mu nekkee jullit ba baa muy faatu diggante boobu yëpp li mu fi def ci ay bàkkaar bu faatoo ñëw fekk mi ngi doon góor góorlu ci moytandiku ay bàkkaar yu mag yàlla subhanahu wa jéggal ko bàkkaar yu ndaw yi mais yi nga xamante ni moom ngay def mu mu mu far say bàkkaar yu ndaw loolu moom léegi léegi nii la léegi léegi nii la du luy xaar kon am na différence ba léegi yàlla subhanahu wa taala di waxaat walladina yajtanibuuna kabaira al ismi wal fawaxisha illa al lamam comme aaya bi ñu jàngoon sànq ci ñooñ nga xam dañuy rafetal di moytandiku ay bàkkaar yu mag lu jul yu ndaw yi nga xamante ni dañ ciy tàbbi euh, mu ne nit ñi dañoo utee moom ibn al qayim dafay wax nit ñi dañu utee ci bàkkaar yu mag yooyu ndax lu am ab lim la wala amul ab lim mu ñoom seen bopp dañu ute ci lim bi ñaata la ndax bu ne ibnu masud def na ñeent la baakaar yu mag yi yu mag yi gën a mag ñeent la ibnu masud abdullah ibnu omar daf ne juróom-ñaar la mooy baakaar yi gën a mag xëy na ci xadis bi la sukkandiku mooy xadisu sabaa abdullah ibnu amr ibnu al-aas ne juróom-ñeent la mu ne am na ñeneen ñu wax ne fukk ak benn la am na sax ñu wax ne juróom-ñaar fukk la mooy baakaar yu mag yi mu ne abu talib al makki benn borom xam bu mag daf ne man xool naa li ci saxaaba yi wax yépp ma dajale ko nee na bi mu ko dajalee gis na ni bàkkaar yu mag yooyu ay xaaj la mu ne am na ci ñeent yoo xamante ni làmmiñ moo koy def mu ne yooyu ñeent nga xam ne ay bàkkaar yu mag la te làmmiñ di ko def mu ne shahadatu zuur nit ki di seede loo xamante ni di dëgg wa xalful muxsanaat ak di jam di tuumaal ñoo xamante ni ñu sàmm seen bopp lañ moo xam ay góor wala ay jigéen jigéen moo ci jiitu mais dañ ci xiyaas góor wal yaminul ak di fen di waat waat boo xam ne waatu fen la du dëgg ngir neenal dëggu jàmbur wala jot loo xam ne du sa du sa àq nit ki di ci waat te du dëgg wa sixar ak ak njabar njabar fil xaalib ci làmmiñ la ko nit ki làmmiñ di jëfandikoo ngir def ko mu ne ñent yooyu ay kabaa'iru zunub la yoo xam ne ci làmmiñ lay lay juddoo lay jóge mu ne ak ñett yoo xamante ni bi ak ñent yoo xamante ni yi jiitu sax ñeent yi jiitu mooy yi nga xamante ni ci xol lay ne ndax xol moo jiitu yooyu mooy ashirk mooy bokkaale min kabair dunub ci xol lay nekk fa lay jóge donte cër yi mën na koo def al a al maasiya nuur ci bàkkaar dañ koo bàyyi ci xol bi la ko nit ki di fas loolu min al bàkkaar bi même bu nekkoon bàkkaar ba ndox nit ki nuur ci dafay nekk min al kabair loolu dina ñëw ci kanam al qunut min rahmatillah xaddi ci yërmande yàlla xaddi ci yërmande yàlla génn ci sa xel moo xam lu jëm ci sa bopp wala ci doomu aadama yi loolu min kabair zunub al amn min la am xel mu dal ci pexe yàlla subhanahu wa taala waru naagu yaakaar na léegi mucc nga yooyu noonu ñeenti bàkkaar yu màgg la yoo xam ne ci xol lay jóge ak ñeenti yi ñu waxoon yi nga xam ne ci làmmiñ lay jóge mu ne ak ñett yoo xamante ni ci biir lay nekk ci biir nit la ko la ko la koy defe mu ne shurbul xamr naan sàngara aklu maalil yatim lekk alalu jirim aklu riba ak lekk riba mu ne ak ñaar yoo xam ne ci pëy la ko nit di defee muy ak zina wala waaba muy njaaloo ak def jëfu xaw mu luut muy jëfu góor jigéen ak ñaar yoo xam ne ci loxo la ko nit ki di defee mu ne ñaar yi def ci loxo ci bàkkaar yu mag yooyu mooy sàcc ak faat bakkan ci lu dëgg mu ne ak benn boo xamante ne ci ay tànk la koy defee mu ne loolu mooy daw ci bu fekkente ne dañuy xare jaamaarloo ak noonu yàlla yi ñuy dëkkmal si nit ki ne waqat loolu ci bàkkaar yu mag yi la bokk nit ki ci ay tànkam la koy defee ak beneen boo xamante ni bi yaram bi yépp a ko mën a def mooy uququl ni mooy dëngee dëngee ay ñaari waajur dëngee ay ñaari waajur moom cër yëpp mën na cee participer ñi nga xamante ni bi ñoom ñoo ñàkk tënk bàkkaar yu mag yooyu ci ab lim ñoom dañu wax ne lépp loo xam ne yàlla da koo tere ci alquran dafa am ci ñoom ñu ne lépp lu yàlla tere ci alquran dafay bokk ci kabair zunub loo xam ne yonent bi moo ko yonente bi alayhi salatu moo ko tere ci sunna du nekk min kabair zunub mais tàqale boobu nekkul lu dëgër ñeneen si ñoom wax ne lépp loo xamante ne dañ koo tere te tere bi ñu ko tere ànd ak xupp wala mu ànd ak rëbb wala mu ànd ak merub yàlla wala mbugalu yàlla loolu dafay bokk ci kabair zunub day nekk bàkkaar bu màgg am ñu ne dépp bàkkaar boo xam ne dañ caa teg ab daan bu ñuy daan nit ki ci àdduna wala ñu xupp ko ab mbugal ci àllaaxira bàkkaar boobu bàkkaar bu mag lay doon bu dul moom bàkkaar bu ndaw lay doon nga gis ne kon loolu mooy ñaari wax yooyu nga xamante ne bi borom xam-xam yi wax nañ ko ci kabairu zunub kabairu zunub yooyu ñaari xaaj la am ci loo xam ne bokkaale la ak loo xam ne du bokkaale bu dee bokkaale ak lu dul bokkaale foog nit ki am ci timit tàqale ak ràññee ndax am na benn sew-sew bu ci nekk sew-sew bi mooy bu fekkente ni bokkaale la nit ki bu ko defee ci àdduna mu tuub ko yàlla dina ko ko jé mën na ko ko jéggal yàlla mën na ko ko jéggal mais bu ko faatuwaale yàlla subhana taala du ko jéggal inna allaha la inna allaha la yaxfiru an yushraka bihi wa yaxfiru ma duna dalika liman yasha yàlla subhana taala du jéggal bàkkaaru bokkaale dina jéggal leneen dul loolu mooy bu ko nit ki faatuwaale ñaareel bi mooy bu ko faatuwaale itam day waral ci moom mu sax safara yàlla day xaraamal ci moom aljanna innahu man yushrik billahi faqad xarama allahu alayhi aljanna yàlla subhana taala fi xaraamal ci moom aljanna bu dee nag yeneen kabaayir yi ci des nit ki bu ko tuubul ci àdduna des koo ko jéggal léeg-léeg jëf yi muy def yi nga xam ne dafay fomp ay bàkkaar mën na caa cof tuuti mën na caa wàññi dara mais mënut a dindi lépp pour lépp dañ moom tuub rek moo ko mën a dindi bu ko faatuwaalee yàlla mën na ko ko jéggal bu ko ko jéggalul tamit ba mu waral ci moom mbugal mbugal ma du ca sax dañ koy mbugal lu tollook ay bàkkaaram ginnaaw ba mu loolu fóot ko mu set daal di tàbbi aljanna kon loolu mooy différence entre ñaari façon kabira loo xam ne shirk loo xamante ne du shirk leneen li nga xamante ni bi mooy bàkkaar yu ndaw loo xamante ni min saxair zunub loolu yàlla subhana taala mën na koo jéggal nit ki ci ay bunt yu bari su fekkente ni moytandiku na loolu jiitu woon ci ay bàkkaar yu mag yàlla mën na koo jéggal bàkkaar yu ndaw yi bu fekkente ni moytandiku na loolu jiitu woon ci ay bàkkaar yu mag yàlla mën na koo jéggal bàkkaar yu ndaw yi ndax loolu dafa nekk condition boo xam ne dañ koy posé ci li nga xam ne mooy ñëw ci kanam mooy yi nga xam ne dafay far ay bàkkaar liñ gis ci li yàlla subhana taala wax ne in tajtanibu kabaira ma tunhawna anhu nukaffiru ankum sayiatikum bu ngeen moytandikoo yu mag yi nga xam ne tere nañ leen ko ñu faral leen seen i bàkkaar dafa nekk condition comme ci yàlla faral la sa bàkkaar yu ndaw yi nga moytandiku bàkkaar yu mag yi kon ndax nit bu defoon bàkkaar bu mag du tere dañ ko jéggal ay bàkkaaram yu ndaw yooyu ci sababu jëf yu baax yooyu muy def ak góorgóorlu yooyu muy def loolu dafa am tafsil beneen bi ci des mooy yonente bi alayhi salatu wasalaam li mu waxoon ci julli ak julli koor ak koor aj ak aj mu ne diggante bi li fi nekk ci ay bàkkaar mu ne ñoom dañ koy far dañ koy far julli yooyu da koy far julli ba ba ngay julliwaat diggante bi lu fi nit ci def bu beneen julli bi ñëwee da koy far waaye dafa si teg ne bu fekkente ni mooy moytandiku na bàkkaar bu mag bu fekkente ni mooy moytandiku na bàkkaar bu mag mu nekk nag comme dafa mel ne yooyu li tax mën a def jëfam ci far bàkkaar yi condition bi mooy nit ki mooy tundiku bàkkaar yu mag léegi li nit ki war a bàyyi xel ba léegi mooy ñu tuddee bàkkaar ne bàkkaar bu ndaw la warta tax nit ki xeeb ko daldi ne comme bàkkaar bu ndaw la léegi mën naa di ko def loolu njuumte lu rëy la moo tax yonente bi alayhi salatu wasalaam dana wax iyakum wa muxaqarati dunub fa innahunna yajtami'na ala rajuli xatta yuhlikna mu ne moytu ko leen di xeeb ay bàkkaar mu ne saa bu ci nit rek alak ko ndax dafa doon wax ci benn xadis ne xeet ay bàkkaar mi ngi mel ne ay nit yoo xam ne dañoo daje ci benn àll am lu ñu bëgg a togg waaye amuñu mat kenn ku nekk ci ñoom dem indi benn bant ñu indi benn bant bi ñu ko dajalee mu nekk aw say wu rëy ñu taal togg li ñu bëgg a togg ba desal mu ne bàkkaar di ko xeet noonu la mel ci nit dafay daje ci yow ba jural la alkande woo xamante ni doom foo koy waxee ji moo tax Abdullah ibn Abbas doon wax naan laa tandur ila sigaril maasiya walakin indur ila izami man asayta Abdullah ibn Abbas doon wax naan bul xool tuutiwu bàkkaar ndax tuuti na wala tuutiwu loolu bul ko xool waaye na nga xool màggaayu ki nga xam ne moom nga mooy xoolal màggaayu ki nga xam ni moom nga mooy beneen façon tooñ bi mooy tooñ bi nit ki di tooñ boppam te loolu mooy delluwaat ci bépp bàkkaar boo xam ne nit ki def na ko bépp tooñ ak bépp ñaawteef bu nit ki def ci kawam lay këpp boppam lay tooñ façon tooñ boobu day delluwaat ci ban anam la jël ndax bàkkaar bu mag la def wala bàkkaar bu ndaw la def bu boobaa mu delluwaat ci tàqale bi ñu tàqale woon léegi ñaareel bi ci des wala ñetteel bi ci des mooy tooñ bi muy tooñ ay moroomu jaamam loolu moo gën a compliqué euh, dina ñëw ci bu ñuy wax ci wàllu tuub naka la ko nit ki di faree mooy bu fekkee dafa tooñ moroom moroomam léegi yi nga xamante ni bi moom mooy far ay bàkkaar euh, cheikh al islam taymi rahimahullah da cee indi ci majmuul fatawa euh, lu mat fukki yoo xam bu ci nekk sabab la boo xam ni nit ki mën na cee ay bàkkaaram moo tax ibnul qayim di wax ne fa li ahli zunubi talaatatu anhaar idaam yatataharuuna lam taxi bi tuhrihim tuhiru fi nahri aljahim yowma alqiyama ibnul ibnul qayim dafay wax ne ñi nga xam ne ñooy ay bàkkaar ci àdduna yàlla yàlla defal na leen ñu am ñetti dex yoo xam ne dex gu mën nañ caa sangu mu setal seeni i bàkkaar mu ne bu ñetti dex yooyu setalul seen bàkkaar mu ne la koy setal bu ëllëgee mooy dexu safara mooy setal bàkkaar yooyu moo koy lakk ba mu set kon ñetti dex yu mag la yoo xam ne yàlla teg na ko fi ngir képp koo xam da ngay juum di def bàkkaar nga sóobu ci sangu ngir mu dindi say sa taq-taq yooyu la bi ci njëkk mooy nahru tawbati nasuux mooy dexu tuub tuub goo xamante ni tuub gu gu gu yëwan la tuub gu baax la nasuux bi maana naasixa tawba naasixa naasixa mi ngi jóge ci an nusx danga naan nasaxa rajulu sawbahu euh, ida xaatahu nit ki bu fekkente ne yërëm dafa xotteeku mu jël puso di ko defaraat di ko ñaw loolu muy def nusx la tudd nusx noonu lay def nit bu fekkee nit ki dafa tuub moo tax yàlla ne yaa ayuha alladina amanu tuubu ila allahi tawbatan nasuuxa nit ki bu fekkee dafa def bàkkaar bàkkaar yi day am lu muy yàq ci moom bu tuubee tub gi day ñëw di ko réparé wat da koy defar tub googu noonu mu ne ab dex la boo xam nit ki mën na cee sangu mën na cee soobu ngir mu raxas ay bàkkaaram beneen bi ci def mooy nahrul xasanaat al mustagriqati lil awzaar al muxiitati biha mu ne beneen bi ci des yarhamukallah mu ne beneen bi ci des mooy dexu jëf yu baax yi nga xamante ni bi dafay labal ay bàkkaar da koy muur bàkkaar yi jeexal ko mu ne loolu tam beneen dex la boo xam ne mën na caa soobu dexu jëf yu baax jëf yu baax yooyu dafay fomp ay bàkkaar am na ci jëf yoo xamante ni toll na foo xam ne ci am kàttan bàkkaar bu mu fekk da koy da koy far da koy dindi mu ne beneen dex a ngoog mën na caa soobu mu ne wa nahrul masaa'ib al azima al mukaffira mu ne beneen dex bi ci des mooy dexu musiba yi nga xam ne ay musiba yu tar la yoo xam ne yàlla da koy teg jaam bi di ko ci dindil ay bàkkaaram mu ne beneen dex mu ne fa ida arada allahu bi abdihi xayran adxalahu ahada hadihi al anhaari thalatha fa warada al qiyaama tayiban tahiran lam yaxtaj ila tathir mu ne bu yàlla nammee ci jaamam ab yiw bu yàlla nammee ci ab jaamam lu baax daf koy tàbbal ci benn ci dex yooyu mu ne bu ko defee mu daal di set wicc ci ay bàkkaar bu yowmal qiyaamee buy ñëw day set wicc du indaale dara du soxla sax ñu koy raxas du soxla ñu koy raxas ci ay bàkkaar ku ne mun kon mun a ñetti dexangoog kon boo xoolee asbaab yooyu Cheikh l'Islam Taymiyya rahimahullah di wax te mooy waxtaan wi daanaka di fukki asbaab ñu dolli ci beneen muy fukk ak benn asbaab yooyu yëpp mën nga ko delloo ci ñetti mbir nga ko delloo mooy tuub tawba boobu dafay far bakaar mu ne wa hada muttafaqun alayhi bayna almuslimin mun ne loolu mbir la boo xam jullit ñëpp dañ cee dëppoo ci ne tub googu dafay xar ay bàkkaar eh, tub googu mooy arrujoo mooy li ñu xamante ne dafay nit ki da koy def tuub bu ñu ko waxee mooy dellu dellu taaba ida rajaa tuub na mooy dellu na lay dellu jóge ci bàkkaar dellu ci topp yàlla subhanahu wa taala loolu mooy tuub tuub googu ay shuruutam mooy lan bu fekk tuub bu fekkente nit ki dafay tuub laaj na mu xam ci lan lay tuub loolu mooy li ñu doon sànq ci façon bàkkaar yi bàkkaar bu nekk ak ni ko nit ki di réparé ak ni mu koy defaree nit ki buy tuub ci bàkkaar bu fekkee bàkkaar la boo xam digganteem ak boppam la digganteem ak boroomam la na góorgóorlu ba ñetti condition daje si bi si njëkk mooy mu réccu an nadam moo tax yonente bi alayhi salatu wasallam doon wax ne an nadamu tawba yonente bi alayhi salatu wasallam dafa naan ci xadis moom alimam ahmad moo ko solo mu ne réccu rek tuub la réccu tuub la réccu mooy li gën a am solo ci tuub réccu mooy li gën a am solo ci tuub moo tax ba léegi mu doon wax euh, Aïcha radiyallahu anha ba nga koy wax ci tuub naan ko bu fekkente ni danga ngaa juum nga def benn bàkkaar mu ne ko na nga daal di góorgóorlu nga tuub in kunti almamti bi dambin fastaghfirillah wa tuubi ilayhi fa inna tawbata min adambi annadamu wal istigfar yonente bi alayhi salatu doon Aïcha ne ko boot juumee nga tàbbi ci bàkkaar na nga jéggalu nga tuub mu ne ko tuub ci bàkkaar mooy lan mooy nit ki réccu jéggalu réccalu ak jég réccu ak jéggalu mooy tuub tuub li ci gën a am solo mooy an nadam nit ki réccu léeg-léeg nit jóge ci bàkkaar fekk ñëpp ak ñàkk pexe moo ko ci jële mu ne tuub na mais réccuwul ci xolam am na ay ay bànneex yu toq ci yu taq ci xol bi ba léegi yoo xam ne mi ngi koy bégee yoo xam ne ci bàkkaar ba la ko toppee loolu dëgg-dëgg du tuub tuub bu ko nit ki defee dafa war a mel ne koo xam ni dafa def loo xamante ni daal bëggatu ko sax fàttaliku ci dundam dafa war a am regret réccu ci loolu mu def xam ne waru ko woon def rëcc boobu muy rëcc ci xolam loolu am solo la ndax mooy wane ne dafa reconnaître ne def na loo xam ne njuumte la ci digganteem ak boroomam beneen bi ci des mooy mu dañ nekk ci bàkkaar bi parce que mënoo nekk ci jëmmi bàkkaar bi ba pare wax ne da ngay tuub ndax tuub bu ñu ko waxee mooy rujuux mooy da taxaw fi nga taxaw naan atuubu damay tuub bu fekkee da ngay tuub da ngay rujuux mooy da ngay jógee fi nekkoon nga dellu si ndax da ngaa génn yoon beneen bi ci des mooy boo delloo nga fas góor lu jàpp sa xol ne du delluwaat ndax jamono bi ngay jël si yaa ngi naan maa ngi ñëwaat léegi loolu saraxatan du tuub mooy da nga war a am azm fas sa xol ci ne du ma delluwaat ci loolu bu fekkente ni léeg-léeg bàkkaar bi dépassé na cadre nit ki ak boromam ndax léegi am ci bàkkaar yoo xam ne ay yàqam dafay dépassé jëmmi nit ki ci boppam lu mel ni ko xam dafa tasaare réer ci kaw suuf mooy al ifsaad fi l ardu tasaare réer ci kaw suuf tasaare ay ay caaxaan ci kaw suuf yàq ci kaw suuf woo ci ay nit ba nit ñi ko ca kooku bu tuubee tamit war na góorgóorlu ba defaat li ñu tuddee islaax muy defaraat ak yëwanal defaraat ak yëwanal ci kémtalaay kàttanam ñoom daan wax di leen sànq ak di leen réeral mu dajalewaat leen wax leen yoonu njub ne leen li ma leen daan wax lépp ay caaxaan la du dëgg lii mooy dëgg jaar leen ci ngir dëgg-dëgg mu firndeel ne tuub na ca la nga xam ne coo lool la ca la nekkoon réer gi nga xam ne gars yi ñu ngi ca te moo am na ci responsabilité mu fexe responsabilité boobu mu dégagé ko digganteem ak boroomam moo tax yàlla subhanahu wa taala bi mu waxee ci gaa yi nga xam ngir sànq nit ñi yàlla wax ci mbugal ak mere ak jëpp bi nga xamante ni loolu waral na ko ci ñoom te muy jóge ci borom bi subhanahu wa taala daf ne illa alladina taabu wa aslahu wa bayanu fa ula wa bayanu fa ulaika atubu alayhim wa ana tawaabu rahim yàlla subhanahu wa taala dafa wax ne lu dul ñi nga xamante ni bi ñoom ñoo tuub daal di yëwanal daal di leeral kon li ñu yàqoon ci dëgg ga ñu nëbboon nañ góorgóorlu ba leeralaat ko nit ñi pour nit ñi xam ko ndax am nañ ci responsabilité waroo tuub rek toog sa biir kër ne tuub naa mu yem sa diggante sa borom te li nga defoon ci ay bàkkaar ay jeexitalam ak ay yàquteem daf la dépassé am ñeneen ñu mu laal góorgóorlu ba loolu sa kéemtalaay kàttan nga defar ko bu fekkente ni nag euh, tuub gi dafa nekk ci diggante nit ki ak moroomu mbindeefam dina ko tuubal ci ñetti mbir yooyu ñu waxoon mais da ciy dolli beneen mbir mbir bi mu ciy dolli mooy bu fekkee digganteem ak ak nit la mu nekk àq joo xam ne dafa nekk ci moom ci digganteem ak ak ak mbokk jullitam wala digganteem ak keneen war na fexe ba àq boobu mu delloo ko moo xam alal la jum jëloon ci moom wala wax ci bon jum jëloon mu teg ko ci daram te du dëgg loolu daf ci war a def li ñu tuddee taxallul mooy da ci war a set set ci mooy imaam mu delloo ko alal ji bu fekkee mënatu ko mu saraxeel ko ko yéeneel ko ko ba pare di ko ñaanal njéggal bu fekkente ni wax ju bon ju mu waxoon la mu jéggalu ko bu ko ko waxee bu indi problème mu wax ko ko carrément maa la waxoon lii ak lii maa ngi lay jéggalu kooku jéggal ko bu fekkee bu ko ko waxee mu jur loraange woo xam ne moo gën a rëy mu bañ ko koo wax carrément ne ko lii laa la waxoon mais mu wax ko ne ko mës naa laa wax dara tooñ la maa ngi lay ñaan nga jéggal ma bu ko defee mu jéggalu ko bu dee loo xamante ni xëy na sax bu ko ko waxee mu indi problème ndax def na ko bàkkaar bu def na digganteem ak moom tooñe woo xamante ni xalaatu koo wax nooy jéggalul mbokk jullitam na koy jéggalul bu fekkee daa yàqoon deram fenn mu fexe ba dellu foofu waxal ko fa lu baax wala bu toogatee fenn bu ñu waxee turam mu wax ci moom lu baax ak di ko jéggalul amaana yàlla subhaanahu wa taala jéggal leen ñoom ñaar ñëpp tub boobu li war a xam mooy ne tub mat la jaamu yàlla bu màgg la mais du ak doyadi du suufe ñu bëri dañu yaakaar ne bu ñu nee tuub rek mooy nit ki dafa nekk ku ku bon koo xamante ni daal moom nit ku bon la ba tax muy soxla di tuub mais nit ki gën a baax dafa war di góorgóorlu di tuub ndax yonente bi alayhi salaatu wasalaam ñun ñëpp moo ñu gën a mat moo ñu gën a ragal yàlla subhanahu wa taala gën ñoo góorgóorlu ci digganteem ak borom subhanahu wa taala gën ñoo sori lépp loo xam ne ay bàkkaar la te terewul daf daan wax naan yaa ayuha nnaas tuubu ila rabbikum fa wallahi inni la atuubu ila allahi azza wa jal fi l yawmi miata marra daan na wax naan yéen nit ñi da leen tuub di dellu ci yàlla man dinaa tuub di dellu ci yàlla ci bis bi téeméeri yoon moom sallallahu alayhi wa sallam te moom yàlla subhanahu wa taala jéggal na ko ay bàkkaaram ak loolu yëpp terewul daf daan bëril di tuub daf daan bëril di tuub kon tuub lu mat la loo xam nit ki dafa war di góorgóor di tuub fu mu toll même bu gisul ne def na dara loo xam ne gis na ni lii bàkkaar la terewul dafa war di gën góorgóor di tuub bu seytaane ñëw mukk dikkal la naan la defaloo dara bul tuub loolu njumte la beneen sabab bi ci des muy al istigfaar beneen sabab bi ci des ci asbaab yi nga xam ne dafay far ay bàkkaar ba léegi mooy jéggalu istigfaar jéggalu boobu istigfaar boobu mën na ànd ak tuub comme mën na ànd moom kese boo àndee ak tuub mu istigfaar bi ànd ak tawba moo gën a tee matale ndax moom dootul bàyyi benn bàkkaar mais bu dee moom kese la dina xaw a néew doole tuuti mais mu des ci ni ko nit ki defee parce que dina ñëw ci kanam ci ne defin bi ngay def mbir yi dafay jeexital tamit ci kàttan gu muy am ndax ñaari nit mën nañoo yore marto ku nekk yore benn marto marto bu nekk di peese par exemple un kilo ñuy dajj benn mur ku nekk di dóor bu kii dóoree benn brique mooy daanu bu kii dóoree ñetti brique mooy daanu lu tax parce que seen i doole seen doole moo tollowul marto yi ñoo tolloo waaye doole yi tollowul bu fekkee yi ngay jëfandikoo ay jumtukaay la léeg-léeg doole bi muy am pour mun a dindi ay bàkkaar yu bëri dina del delluwaat tamit ci force bi ko nit di defee ci dëggu bi mu ciy dëggu ak sellal bi mu ciy sellal ak gëm gi mu koy gëm am ci yaqin yi ak ki nga xam ne da koy def defin boo xam ne la yàlla xam doy na kon léeg-léeg doole bi foofu lay foofu lay delluwaat moo tax istigfaar boobu léeg-léeg nit ki mën na koo def même bu àndul ak tuub mu dindi lu bëri ci ay bàkkaaram yonente bi alayhi salatu wasalam dana wax naan ida aznaba abdun danban fa qaala ay rabbi aznabtu faghfir li fa qaala alima abdi anna lahu rabban yaghfiru danb wa yaxudu bihi qad gafartu li abdi yonente bi alayhi salatu wasalam nee na bu fekkee jaam bi dafa def ab bàkkaar mu ne yow sama borom def naa ab bàkkaar jéggal ma mu ne yàlla def naan sama jaam bi xam na ni am na am na borom boo xam ni daf koo tere lii na ko waroo ko woon def ba tax mu def ko di ko jéggalu te xam na ni borom boobu dafay jéggale xam na ni tamit bu ko jéggaluwul woon mën na koo jàppee bàkkaar boobu kon jéggal naa ko xam-xam boobu ma ko xam yàlla ni jéggal naa ko yonente bi alayhi wax ko ba muy ñetti yoon wala ñeenti yoon mu ne yàlla saa bu ko jaam bi waxee yàlla waxaat ko loolu ba ci ñetteelu yoon bi yàlla ne sama jaam bi na def lu ko neex na def lu ko neex jéggal naa ko xadis boobu euh, xadis bu wér la nekk ci albuxaari wa muslim ba léegi xadis boo xamante ni mi ngi ci saxi muslim saxi yonente bi alayhi salatu wasalam mooy xadis abi horera bi ñu waxoon sànq law lam tudnibu la dahaba allahu bikum wala jaa bi qawmin yudnibuna tumma yastaghfiruna fa yaghfir lahum yonente bi alayhi salatu wasalam di wax ne bu ngeen dul woon di def ay bàkkaar yàlla jële leen fi indi ñoo xam ne dañuy def ay bàkkaar di ko jéggalu mu leen di jéggal ndax loolu dafa bokk ci jubluwaay yi tax yàlla indi leen fi ci matadi gi gi ngeen matadi mu xam ko ba pare indi leen fi te malaaka yi gën leen a mat fuuf mu tànn leen indi leen fi jubluwaay yi bokk na ci yàlla dafa bëgg a wane yërmandeem kon foog ngeen di jum di ko jéggalu mu leen di jéggal ndax loolu ci jubluwaay yi tax mu indi leen fi ci la bokk loolu kon mooy al istigfaar bi nga xam ne yonente bi alayhi salatu wasalaam daan na ko faral di def lu bari daan na def léeg-léeg bu toogee ci jotaay ñu wàññil ko lu bari muy muy muy muy wax ay astaghfirullah lu bari woon di wax ci làmmiñam la lu bëri ay njëriñ la ci dund jullit bi ci day far ay bàkkaaram waaye tamit da koy ubbil ay buntu njàqare boo saa bu amee njàqare mu ubbil ko ay bunt istigfaar nit ki su koy taqoo di ko def saa bu amee njàqare yàlla subhanahu wa taala ubbil ko buntu faraj istigfaar beneen sabab bi ci des mooy sababu saalis mooy alxasanaatul maaxiya mooy jëf yu baax jëf yu baax yi nga xamante ne dafay far ay bàkkaar comme li mbokk bi waxoon léegi ci xissa boobu waaye ji ne dafa foonoon as ndaw te loolu yellul ci moom ñëw ci yonente bi alayhi salatu wasalaam di ko laaj lan moo ci mbiram yàlla subhana taala wàcc aaya bi ne aqimi solata tarafayi nahaari wa zulafan min al-layl inna alxasanaati yudhibna as-sayyi'aat na nga taxawal julli loolu juróomi julli yëpp ñu ngi ci parce que ñaari cati bëccëg bi mooy fajar ak timis loolu julli yi yëpp dañ ciy dugg beneen bi ci des mooy julli guddi yi te mooy julli gée kon tarafayi nahaar julli yi ci bëccëg bi yëpp a ngi ci biir zulafan min al-layli julli guddi muy muy fajar moo tax yenn borom xam wax ne aaya bi bokk na ci aayat yi nga xam ne awqaatu salaa yëpp mi ngi ci mu daal di koy wax ne ko na góor góorgóorlu ci lool taxawal julli yooyu inna alxasanaat inna alxasanaat yudhibna sayiat jëf yu baax yi ngay def dafay far say bàkkaar jëf yu baax nit ki di def dafay far ay bàkkaaram kon alxasanaat yudhibna sayiat kon bokk na ci mukaffiraatu zunub nit ki jëf yu baax yi muy góor di ko def jëf yu baax yi nag buñ ko waxee bu dégg rek yi nga xam ne yuy jóge ci moom la mu koy def mais te yàlla tax dafay dugg ci jëf yu baax ndax nit ki bu bu mënee def ab bàkkaar mu ragal yàlla tax mu bàyyi ko defu ko loolu ab jëf ab bu baax la ndax bàyyi jëf la bàyyi jëf la al al tarku amalun bàyyi dara jëf la ku bàyyi dara dangaa jëf léegi bu fekkee da nga dugg ci buntu jëf yu baax yi nga xam ne dafay far ay bàkkaar xaaxida bu règle générale bi mooy li yonente bi alayhi salaam waxoon saxaabi bi ne ko waatee sayiata alxasanata tamxuha saa boo defetee ñaawteef na nga ci toftal jëf bu baax ndax daf koy far soo defee lu ñaawteef njuumte góorgóorlu nga toftal ca jëf bu baax saraxel jàppul nga julli ñaari rakaat defal lu baax wooral benn fan masalan ila axirihi loolu yëpp ay jëf baax la jëf yu baax yëpp ci ñu tolloowu ñi ñi faree ci bàkkaar léeg-léeg nit ki mën na ci mën na cee gën a détaillé gën gën koo xam ci façon boo xam ne dafay gën leer jëf yu baax yooyu comme nañ ko doon waxee sànq nekkul ne yépp ñoo tolloo ci doole ci kàttan ci ni muy jóge ci jaam bi faral ko ay bàkkaaram yépp tolloowuñ ci doole ibnul qayim dafay wax ne salaasa darajaat la ñetti daraja la mu ne lu am na ci yoo xamante ni bii dafa sax néew doole ba mënta fomp bàkkaar yu ndaw xëy na mën na dindi yenn rek mais mënta dindi bàkkaar yu ndaw mu ne loolu li ko waral mooy néew doole gi mi ngi jóge ci ki ko def jëf bu baax la néew doole gi tax jëf bi mënut a far bàkkaaram yu ndaw yi mu ngi jóge ci moom ci defin bi moo tax mu new doole mu new kàttan comme ni ñu ko doon waxee léegi ci ko yor marto bi di daaj néew doole gi marto bi néew doole mi ngi jóge ci loxo bi moom itam def na jëf bi mais jëf bi néew na doole ba tax li mu waroon far ci ay bàkkaar faru ko ndax néew doole bi mi ngi jóge ci moom mu ne am na ci loo xamante ni mën na tane dëgër ba tax ay bàkkaar yu ndawam da koy far jëf bi mu koy def di ko faral ay bàkkaar yu ndawam mu ne léeg-léeg mën na dëgër a dëgër ba àgg ci jëfam yu baax yooyu di ko faral xatta bàkkaar yu magam yi même bu dindiwul lépp mu am lu mu cay dindi ndax bàkkaar yu mag yi wax nañ ni lépp lépp li koy dindi mooy ab tawba mooy tuub waaye léeg-léeg yu baax yi muy def bu dëgëree ànd ak ixlaas bi mu war a àndal ak dëggu bi mu war a àndal ak yaakaar bi nga xam ne moo ci war a topp dëgg-dëgg mën na dindi xatta lenn ci ay bàkkaar yu mag mu ne loolu boo ko xamee ñetti daraja yooyu mu ne dina la musal ci lu bari ci ay problème ci yenn text yi nga xam ñoo ñëw yenn yi du wane ni am na jëf yu baax yoo xam dafay far ay bàkkaar yu mag yenn yi du wane ni jëf yi ngay jëf mun a far bàkkaar yu mag bàkkaar yu mag tuub moo koy far ndax comme li ñu doon wax sànq ci xadis bi yonente bi alayhi wax ci julli ak koor ak aj màkka dafay dindi ay bàkkaar bu fekkee nit mooy tundiku na bàkkaar yu mag yi kon mooy du far bàkkaar yu mag du dindi bàkkaar yu mag mais yu ndaw lay dindi te pourtant da ngay dem ci yeneen xadis gis ñu wax ay jëf yoo boo ko defee dañ lay baal bàkkaar yoo xam ne ci bàkkaar yu mag yi lañ ko boole mu ne pour nga comprendre loolu xamal ne léeg-léeg doole bi force bi jëf bu di am bay mën a laal ci bàkkaar yu mag yi dafay delluwaat ci ci jëfin bi mu ko jëf mu ne loolu moom dina musal ci lu bëri ci ay iskalaat léegi mu def ci leneen loo xam ne ibnul xajar rahimahullah daf koo jëlee ci benn sëriñam bu tudd al bulqiini muy wax ne nit ki mbiram ak bàkkaar yi ñetti anam la imma mu def bu ñàkk def bàkkaar deful bàkkaar kon jëf yu baax yi ñuy def amul bàkkaar bu mu koy faral amul bàkkaar bu mu koy fompal léegi fomp boobu moo waroon fomp ay bàkkaaram kon léegi nu muy demee mën ne loolu dañ ko koy fay ay yiw dañ ko koy fay ay yiw ñaari nit def benn jëf jëf bu baax kii dafa amoon ay bàkkaar jëf bu baax bi faral ko ay bàkkaaram kii amul bàkkaar ñu fay ko rek mais faralu ko dara mooy dindilu ko dara ci bàkkaar léegi loolu moo ko waroon dindil ci bàkkaar dañ ko koy dollil fay ko ko ci yool bi koo xamante ni def na ay bàkkaar waaye ay bàkkaar yu ndaw la ba pare nuurul ci bàkkaar ya nuuru ca bàkkaar yu ndaw la ba pare nuuru ca kooku bu defee jëf yu ndaw jëf yu baax yooyu daf koy faral bàkkaar yu ndaw yooyu la mu ne loolu jazman lu ñu amul sikki sàkk la daf koy dindi koo xamante ni bi def na bàkkaar yu ndaw waaye da caa nuur mu ne bu fekkee dañoo considéré nuur ci bàkkaar yu ndaw mu nekk bàkkaar bu mag mu ne bu boobaa kon jëf yooyu est-ce que dina mën a dindi bàkkaar yooyu est-ce que dina ko mën a dindi parce que waxoon nañ sànq ne al israar ala sagira kabira mooy di nuur ci bàkkaar bu ndaw loolu ci jëmmi boppam jëf boobu la fekk bàkkaar bu ndaw nga nuur ci bañoo bañ koo bàyyi di ko def nanguloo cee tuub loolu jëmmi jëf boobu ci boppam bàkkaar bu mag la jëmmi jëf boobu ci boppam bàkkaar bu mag la bu dee loolu ci boppam bàkkaar bu mag la kon ndax léegi jëf yu baax yi muy def dina tax bàkkaaram yu ndaw yooyu mu nuur ñu baal ko ko wala déet loolu lu ñu war a taxaw la keneen ki ci topp mooy ki nga xamante ni dafa def ay bàkkaar yu ndaw ak benn bàkkaar bu mag wala ñaari bàkkaar yu mag maanaam daal bàkkaar yu mag yu néew la ndax bàkkaar yu ndax jëf yu baax yi muy def dina mën a tax kon ñu jéggal ko ñaar ñooñu ñëpp naam jëf yu baax yi dina ko mën a jéggal bu fekkente ni force boobu ñu doon sànq mi ngi ci pour mën a àgg ci bàkkaar yu mag yi dindi ko keneen ki ci des mooy ki nga xam dafa def bàkkaar yu mag ak yu ndaw yépp kooku moom imma ñu jéggal ko wala ñu ñàkk ko jéggal li gën a dëgër mooy su ko jéggal ndax yàlla subhanahu wa taala yi wax ne in tajtanibu kabaira ma tunhawna anhu ñaareel bi ci des mooy majtunibatil kabair yonente bi alayhi salatu wasalam waxoon ci xadis yooyu mu wax ay jëf yu baax yoo xam ne dafay far ay bàkkaar mu ne bu fekkente ni mooy moytandiku nga bàkkaar yu mag yi moo tax ci benn riwaay bu nekk ci muslim boo xam dafa gën a leer daf ne maa min imri'in muslim taxduruhu salaatun maktuba fa yuxsinu wudu'aha wa xushuucaha wa rukuucaha illa kaanat kafaaratan lima qablaha min aldunub ma lam ta'ti kabira wa dalika addahra kullahu yonente bi alayhi salatu salaam ne amul benn jullit boo xam ne julli farata dina ko dina ko fekke dina ko teewee mu ne mu daal di rafetal na mu jàppoo rafetal toroxloom ak teewloom ci julli ba rafetal rukkoo ya lu dul ne julli boobu dina nekk loo xam dina far bàkkaaram yi jiitu woon yépp mu ne lu dul nag deful ab bàkkaar bu mag lu dul deful bàkkaar bu mag maalam tati kabira loolu kon li muy tekki mooy bu defee bàkkaar bu mag dafay ne loolu dootul mënatee dindi ay bàkkaaram kon jëf boobu ak li muy màgg màgg yépp dootul mën a dindi ay bàkkaaram mu ne wa ak dahra la mu ne loolu nag giiru dundam la giiru dundam saa bu defee jëf bu baax boobu dafay far ay bàkkaaram tayib léegi loolu kon benn tafsil bu ndaw la ci li aju ci wàll yooyu nga xam dafay far ay bàkkaar yooyu di ay bàkkaar ñoom ñëpp ni ñuy faree bàkkaar bokkul am na ci loo xam dafay far ay bàkkaar yi ñuy jiitu ak yu mujj muy maa taqaddama wa maa taaxar loolu am na ci yenn borom xam-xam yoo xam dañ koo dàq ne amul benn texte buy ñëw di wane ne nit mën na def benn jëf ñu ñu ñu jéggal ko ay bàkkaar yu njëkk ak yu mujj ndax yàlla loolu yonente bi alayhi salatu salaam la ko leen mais li ñu war a xam mooy jagleel bi ko yàlla subhanahu taala jagleel yonente bi alayhi salatu salaam ci nem ko ko defalee bokk ak ki nga xam ne dafa def bàkkaar yàlla dafa def jëf yàlla jégal ko bàkkaar mi jiitu ak yu mujj yonente bi alayhi salatu salaam yàlla daf ko garanti ci ay bàkkaar ba baa mu fiy jóge yow amoloo garanti yéen ñaar tolloowu leen ci loolu jëf boo xam ne day waral ñu bàll say bàkkaar yi njëkk ak yu mujj dootul tax nga croiser les bras man jéggal nañ ma samay bàkkaar yi njëkk ak yi mujj dootuma def kon bàkkaar loolu xata njuumte la fexlan am na ay textes yu ci ñëw yoo xam ni dafay wane ne am na jëf yoo xam ne boo ko nit ki defee ñu jéggal ko bàkkaar mi jiitu ak yi mujj loolu ku mel ne alxaafid ibn alxajar euh, mi ngi ciy wax ci fat di wax ne bind na ci benn téere bu tudd alfafaar almukaffira li dunubi almuqaddama wal muaxara mais man gisuma ko gis naa daal muy ne bind na ci benn téere boo xam ne ci ay xadis yi wax ci loolu rek la ci dajale yoo xam ne dafay wax ci jëf yoo xam ne bu ko nit ki defee ñu jégal ko ay bàkkaar mi njëkk ak bàkkaar mi mujj mais ala kulli xaal bokk na ci yi nga xam ne bu ko nit ki defee ñu jégal ko bàkkaar mi njëkk ak yi mujj xadis bi nga xam ne Muaz ibn Anas al-Juhani moo ko nettali jële ko ci yonente bi alayhi salatu wasalaam mu ne man labisa thawban jadidan fa qaal alhamdulilah alladi kasaani hada wa razaqanihi min gayri xawlin minni wala quwa gufira lahu ma taqaddama min danbihi wa ma taaxar والحديث أخرجه أبو داود والترمذي وقال حسن وكذلك الحاكم وقال صحيح على شرط البخاري xadis bi day wax ne yonent bi alayhi salaatu salaam nee na koo xamante ne dafa sol yére bu bees mu daal di wax ne maa ngi sant yàlla mi nga xam ne moo ma wërsëgal xéewal gii ci lu dul loo xam ne sama pexe la wala sama kàttan la ci yërmandeem ak ci ci mbaaxam moo ma ko wërsëgalee mu ne bu waxee loolu yàlla da koy jéggal ay bakkaar yu njëkk ak yu mujj subhaanallah inna allah waasiul magfira waasiul magfira moo tax Abdullah ibn Mas'ud di wax ne képp ku say benn benn gañe say fukk fukk perte nga yow boo jëfee benn bu baax ñu fay la fukk boo jëfee benn bu bon ñu fay la benn boo naroon jëf bàyyi sax yàlla fay la ko bu baax boo naroon jëf lu baax jëfatuloo ko yàlla fay la ko benn mu ne loolu ku ciy dof dof lu ba say benn benn gañe say fukk fukk perte nga inna allaha waasiul magfira ak li yàlla subhanahu wa taala tijjiwaatal jàmm bi lépp ci ay buntu yërmande ak buntu njéggal subhana rabbi alazim ba léegi xadisu abi hurayra ak alxasan ibn ali yonente bi alayhi salatu wasalam di wax ne man saama ramadana imanan wa ixtisaban gufira lahu ma taqaddama min dambihi wa ma taaxar am na ñu ñu ñu tadif ziyadatu wa ma taaxar mais thabit an nabi sallallahu alayhi wa sallam ci ne koo xamante ne dafa woor weeru koor ci gëm ne yàlla subhanahu wa taala moo ko faratal ak wor ko ci am yaakaar ca la yàlla subhanahu wa taala dencal ko ci eh, njëkkal ak ci fay muy ixtisaaban mooy koor gi mu koy koor loolu ko ko tax a gëm gi mu ko gëm ak wóolu gi mu wóolu fayub yàlla subhanahu wa bu ëllëgee mu ne ku ko wóor ci anam boobu yàlla subhanahu wa taala jéggal la say bakkaar njëkk ak yi mujj la chaque ne mbir yi buñ koy wax dafa ay ay ay ay ay usus yoo xam ne ci lay tegu mooy day am ay fondement yoo xam ne ci lay tegu masalan nit ki nga xam dafay nur ci ay ay shirk ñor ci ay bidaa ak ay xurafaat yu nekk ba pare di def lii est-ce que jëf yi dina mën a tax ñu jégal ko ay bàkkaaram laa wa la la chaque ne jëf yi bu ñuy wax nit ki def ko mooy dafay moytu yi ndako yi nga xamante ni mooy kabair zunub mooy bàkkaar yu mag yi nga xam ne dafay yàq diine nit ki dafay yàq diine nit ki yeneen yi ci des muy beneen xaaj bi ci des mooy bàkkaar yi nga xam ne dafay jéggal daf dañ mooy jëf yi nga xam ne dafay far ay bàkkaar yi jiitu dafay far ay bàkkaar yi jiitu lu mel ne yonente bi alayhi salatu wasalaam li muy wax ci woor lu mel ne bisu euh, ashura wala bisu arafa gis nga muy wax yonent bi ci koor bis yooyu dafay far bàkkaar at bi nga xamante ni moo jiitu at at bi nga xamante ni moom nga nekk naka noonu moom sallallahu alayhi wa ci xadisu Ousmane bi nga xamante ni jàpp na jàpp ñett ñett ba mu àgg mu daal di wax ne damaa gis yonent bi alayhi salatu mu jàpp njàpp lu mel ne jàpp bi ma jàpp daal di wax ne képp ku jàppoo comme ni ma jàppoo nga jóg nga julli ñaari rakka yoo xam ne doo ci wax ak sa xel doo ci wax ak sa xel mooy doo nekk di waxtaan ci sa biir xel ci mbiru àdduna ak mbir yoo xam ne amul rapport ak julli bi mu ne nga góorlu ba teewal sa xel ci julli boobu ginnaaw bi nga jàppoo njàpp lii mu ne képp ku def loolu yàlla subhanahu wa taala dina la jéggal lépp lu jiitu woon ci say bàkkaar lépp lu jiitu woon say bàkkaar xadis boobu mi ngi ci Buxaari ak Muslim naka noonu ba léegi Abu Hurayra radiallahu anhu di nettaliwaat xadis man saama ramadana imaanan wa ihtisaaban gufira lahu ma taqaddama min dambihi képp ku wóor weeru koor comme ci anam bi ñu ko waxee woon sànq ci gëm ko ak ci yaakaar fayu yàlla yàlla jégal la li jiitu say bàkkaar ba léegi man qaama laylata alqadri imaanan wa ihtisaaban gufira lahu ma taqaddama min dambihi képp ku taxaw guddi laylatul qadr taxaw ko ci gëm yàlla subhanahu wa taala farataal gi mu farataal woor ak yoonal gi mu yoonal taxaw guddi googu ak am yaakaar ci fayu yàlla subhanahu wa taala yàlla jéggale lu jiitu say bàkkaar kon loolu day gën a firndeel wala day gën a feddali ci jullit bi mu góorgóorlu ba taxaw guddi laylatul qadr mooy mu góorgóorlu ba seet ko fi mu nekk ci fukki gudd fukki guddi yu mujj yi ci weeru koor rawatina yi nga xam ne ñoo toll mu gën a góorgóorlu ci di taxaw ngir mu daje ak guddi googu ngir am xéewal gi yàlla subhanahu wa di ci maye. ba léegi Abu Hurayra di waxaat ne qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa ida qaala غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين فإن من وافق قوله قول أو إن من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه Abu Hurayra day wax ne yonente bi alayhi salatu wasalam nee na ci xadis boo xam ne ci Buxaari ak Muslim mu ne bu fekkee imam daf leen di jiite di jàng mu ne gayril maxdubi alayhim wala dallin mu ne wax leen amin gis nga xadis bi charte ci ne imam wax amin nga soog a wax amin am na ñu ne ida amana al imam fa aminu foog nga xaar imam tamin nga soog a tamin mais yeneen xadis yi ñëw ci ida qaala al imam gayr al maxdubi alayhim wala dallin dafa nekk ay xadis mutlaqa ndax dañuy koy lëkk tënk ci bële wala déet maxalla xilaaf inda al ulama xilaaf la ci borom xam-xam yi mais li ñuy wax mooy yonente bi alayhi salatu wasalam nee na képp koo xam ne sa wax mooy wax ji ngay wax amin dafa daje ak aminu malaaka yi ndax bu imam bi jàngee ba wax ba àgg ci gayr al maxdubi alayhim wala dallin malaaka yi dañuy wax amin bu sa wax dëppoo ak waxu malaaka yi tombe ak ñoom jamono bi ñuy wax amin nga wax amin yàlla da lay jéggal lépp loo xam ne jiitu woon na ci say bàkkaar ba léegi Muaz ibn Anas muy wax ne qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam man akala taaman fa qaala alhamdulillahi alladi atamani hada hada wa razaqanihi min gayri xawlin minni wala quwa gufira lahu ma taqaddama min dambihi subhanallah yàlla da lay wërsëgal xéewalal la yow jaam bi may la nga am loo mën a def ci sa biir nga raxas sa loxo teg sa ñam ne bismillah lekk nga lekk ba sa biir fees war a sant yàlla gërëm ko waaye boo ko santee gërëm ko lan moo ciy toog yàlla dalay lay fayaat yonente bi alayhi salatu salaam nee na képp ku lekk ñam nga wax ne maa ngi sant yàlla mi nga xam ne moom ma leel ñam bi moom ma wërsëgal ñam bi ci lu dul pexe boo xam ne dama koo am wala kattan gu mu am ndax laa xawla wala quwata illa billah mu ne képp ku wax loolu ginnaaw bu mu lekkee ñam ba noppi yàlla jéggal ko lépp lu weesu ci ay a xadis boobu axrajahu abu daawud wa tirmidi wa qaala xasanun saxiix wa ibnu maaja bunt boobu loolu lañ ci doyloo ndax bunt bu ci nekk dañ ciy jël lenn rek buñ bëggoon def istiqsa dina xaw a sori bunt bu ci nekk dañ ciy jël lenn ci ay xadis wala lenn ci ay jëf beneen bi ci des muy beneen xaaj bi ci topp mooy maa yuxriju l insana min azunubi ka yawmi waladathu omo mooy baat jëf yoo xam nit ki bu ko defee da koy setal ci ay bàkkaaram ba mel ne comme bis bi ko ndeyam juree buxaari ak muslim dañuy génn xadis boo xam ne abu hurayra moo ko nettali muy wax ne samitu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul man xajja lillahi falam yarfas walam yafsuq rajaa ka yawmi waladathu ummu képp koo xam ne dafa aj ngir yàlla man xajja lillah maanaam loolu lu ci am solo la am na ci yenn riwaay def ne man xajja hada al bayt képp ku aj ci kaaba gi am ci yenn xadis bi mu ne képp ku aj ngir yàlla mu ne falam yarfas waxuloo waxi caaxaan rafas dinañ ko tekkee ay waxi caaxaan comme tamit dinañ ko tekkee euh, sëy ak jigéen muy sëy ak soxnaam wala def lépp loo xam dafa dafa aju ci sëy uxilla lakum laylata a rafatu ila nisaikum ar rafat foofu li muy tekki mooy wàllu sëy ak lépp lu jëm ci sëy deful loola naka noonu tamit lam yëf suq deful yëfi kàccoor ci ajam googu nee na dina dellusiwaat buy jóge ci aj googu comme ni ko ndeyam woon ci ay bàkkaar dina set wicc ci ay bàkkaar ba léegi ci xadisu abi umama albahili muy wax ne qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ayuma ila waduihi aw ila wuduihi yuridu salaa summa xasala kaffayhi nazalat xatiatuhu ila axiri alxadis ba mu yonente bi alayhi salaatu wasalaam dafay wax ne képp koo xamante ni bii dafa jub jëm ci njàpp te ba muy jub di jëm ci njàpp mi ngi nam ma julli mu ne mu daal di tàmbali di raxas ba muy jàpp mu ne bu raxasee li nga xamante ni bi moom mooy ay loxoom nee na bàkkaar yi nga xam ne fàgg woon na ko yépp dafay daal di rob ak ndox ma nga xamante ni moom la doon raxasee loxo ya bu raxasee kanamam bàkkaar ya nekkoon ca bët ba ak ca nopp ya yépp dafay daal di rot ak ndox ma nga xam ne moom la doon raxasee bu raxasee itam ay loxoom ba ca dojar ya ba ca euh, concu ba bàkkaar ya dafay daal di rot naka noonu tamit tànk yi ba ca dojar yi bàkkaar ya dafay daal di rot mu ne salima min kulli dambin huwa lahu wa min kulli xatiatin ka hayatihi yowma waladathu ummuhu mu ne dafay dem ba bàkkaar yi dafay set ci ndox moom mu doon jàppoo ba dafay mujj mel ne comme na nga xam ne noonu la juddoo woon bi muy soog a judd ndeyam dafay set wicc ci ay bàkkaar mu daal di wax ne fa ida qaama ila salaati rafaahu allahu azza wa jalla biha daraja mu ne ginnaaw ba bu pare ci njàpp la mu jublu ci julli mu ne yàlla dollil ko ci ay darajaat ndax comme que bàkkaar yi set na yàlla yokkee ko ay darajaat mu ne wa in qaada qaada salima mu ne bu toogee julliwul toog na te fekk mi ngi nekk ku mucc ku setu ci ci ay bàkkaar xadis boobu rawahu imam ahmad wa huwa saxix cheikh nasir al albani fi saxix al jamia beneen xaaj bi ci des mooy yi nga xam ne dafay far ay bàkkaar donte nit ki dafa daw xare nit ki dafa daw xare daf lay daf daf lay daf koy baal ay bakkaaram ànd ak ne yonente bi alayhi salatu salaam moo waxoon xamsun laysa lahunna kafaara yonente bi alayhi salatu salaam moo waxoon ne juróom a ngi nii kenn mënu koo amal lu koy far kenn mënu koo amal kafaara juróom yooyu mu ne ashirku billah mooy nit ki def shirk bokkaale wala qatlu nafs bi gayri xaq wala mu faat bakkan boo xam tegu ko ci dëgg wala bëhatul mu'min wala mu naral ab jullit duural ko waxal ko loo xamante ne amul wal firaar min azahf wala mu daw xare wa yaminun saabira yaqtatixu biha maala maalan bi gayri xaq wala muy waat waat yoo xamante ne tegu ko ci kaw dëgg ngir jël ci alal joo xamante ne bii ci kaw neen la ko jëlee mu ne juróomi bàkkaar yooyu kenn amalu ko lu koy far mooy tuub rek moo koy dindi ci tuub bi nga xamante ni moom la ko nit ki war a tuubal mais sinon mun a def lu ko far pourtant yonente bi alayhi salatu wasallam bi mu wax juróom yooyu tudd na ci alfiraar min azahf muy daw daw xare te gis nañ yeneen jëf yoo xam ne ñëw na di wax ne ku ko def dafay far xatta bàkkaar boobu boroom xam-xam yi wax ne kon loolu muy wax ci juróom mbir yooyu bu dee ci shirk la shakka fii mais ci yeneen yi ci des ngir gën a feddali ak ngir gën a wax ci yàquteg bàkkaar yooyu ak nit ki gën war koo gën a mën a moytandiku moo tax yonente bi alayhi salatu wasalam waxee ko noonu moo tax ku mel ni abu cheikh moom dafa solo xadis boobu ci at tawbiix mooy jajj téere boo xam ne ko tuddee jajj mooy yi nga xam ne dafay ñëw texte yi nga xam ne dafay ñëw di jàjj nit ki ci ay bàkkaar ak di ko xupp ci anam boo xam ne bu tar la tayib ñu jëlee ci abdullah ibne masud muy wax ne dégg na yonente bi alayhi salatu wasalam muy wax ne man qaala astaghfiru llah alladi la ilaha illa huwa alxayu alqayum wa atubu ilayhi gufira lahu uh, wa in kaana qad farra min alzaxf abdullah ibne masud mu ne dafa dégg yonente bi alayhi salatu wasalam muy wax ne képp ku wax astaghfiru llah alazim alladi la ilaha illa huwa alxayul qayuum wa atuubu ilayhi mu ne des na la jéggal say bàkkaar donte danga nga mës a daw sax ci xare kaddu googu kaddu gu mag la mooy maa ngi jéggalu yàlla mi nga xam ne amul lenn lu ñuy jaamu si dëgg lu moom moom mi nga xam ne mooy kii am dund gi mag gi nga xam ne képp kuy dund ci moom nga sukkandiku te moom dundam gi sukkandiku wu ci kenn moom borom bi subhaanahu wa taala alqayum mooy ki nga xam ne moo taxawu ku mu mën a doon te kenn taxawu ko ak wéeru ci sa bopp ku dul yàlla da daal di wax ne maa ngi tuub di jëm ci moom loolu képp ku ko wax kàddu yu màgg yooyu yàlla subhanahu wa taala jéggale say bàkkaar donte da nga mës a daw ci xare xadis boobu Abu Daawud moo ko solo ak Tirmidi ak Xaakim qaala saxiixun ala sharti albuxaari wa muslim naka noonu albara ibn azib qaala qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam man istagfara allaha fi duburi kulli salatin ثلاث مرات فقال استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه gafara allahu lahu dunubahu wa in kaana qad farra min azzaxf mu ne ba léegi même istigfaar boobu ci xadiisu bara bu ko nit ki defee ci ginnaaw saa bu jullee julli farata mu def ko ñetti yoon yàlla subhanahu wa taala dina ko jégal ay bàkkaaram donte dafa mës a daw xare euh, beneen xaaj bi ci des mooy yi nga xam ne dafay jéggal nit ki ay bàkkaaram dafay far ay bàkkaari jaam bi donte dafa tolloon ni puuritu géej géej gi ni muy defee ay vague di def puurit noonu donte bàkkaari nit ki noonu la toll woon wala mu ëpp ko sax ay mbir ngi ni yoo xam ne dafay far bàkkaar yooyu abi hurayra di nettali jële si yonente bi alayhi salatu wasalam muy wax ne man sabaxa allah dubura kulli salatin talatan wa talatin wa xamida allah talatan wa talatin wa kabbara allah talatan wa talatin wa qaala tamaam almia la ilaha illa allah waxdahu la sharika lah lahu almulku wa lahu alhamdu wa huwa ala kulli shayin qadir غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر وإن كانت مثل زبد البحر Abu Hurayra day nekk di julli si yonent bi alayhi salaatu wasalaam muy wax ne képp koo xam ne boo jullee julli farata ba noppi da ngay tasbiix mooy da ngay wax subhaanallah fanweeri yoon ak ñett wax alhamdulillah fanweeri yoon ak ñett wax laa ilaha wax allahu akbar fanweeri yoon ak ñett loolu yëpp boo ko boolee muy juróom-ñeent fukk ak juróom-ñeent muy quatre-vingt-dix-neuf mu ne nga mottale ko ak san nga mottale ko ak téeméer nga wax laa ilaha illa allah waxdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir mu ne képp ku koy def saa bu jullee ba pare yàlla dina ko jégal ay bàkkaaram donte dafa toll woon ni puuritu géej xadis boobu muslim moo ko solo ak alimam malik fi lmuwatta ak abu dawud wa nasaa'i wa tabarani ba léegi moom Abu Hurayra mi nettali di jële si yonente bi alayhi salatu wasalam muy wax ne man qaala subhanallahi wa bihamdihi fi yawmin miata marra xuttat xataayaahu wa in kaanat misla zabad albaxru Abu Hurayra ba léegi muy nettali xadis boo xam ne Buxaari moo ko soloo mu ne yonente bi alayhi salatu wasalam nee na képp ku wax subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi wa bihamdihi téeméeri yoon loolu ci cinq minutes benn borom xam-xam laa mos a dégg muy wax ne moom essayé na ko mu Cheikh Abdul Qarib Cheikh Abdul Karim al Khudayr xafidahullah mu ne loolu ci cinq minutes nit ki mën na koo wax subhanallah wa bihamdihi subhanallah wa bihamdihi ba mu téeméeri yoon waaye gàttañ lu mu ne gàttañ lu mooy suñu problème téeméeri yoon ga wax ko ci benn bis mu ne yàlla subhanahu taala dana jéggal say bàkkaar donte dafa tolloon ne puuri fi géej te am na yeneen ngëneel yu ci ñëw li mooy jëmmi rek njéggal bi ñu la ciy jéggal mais li muy jural nit ki ci ay xéewal ak ay ngëneel bu ëllëgee yonente bi alayhi salatu wasalam nee na kenn du indi bu ëllëgee lu toll ne li mu indi lu dul ko def lu mel ne li mu def wala lu ko ëpp ba léegi abdulahi ibne amr ibne al-aas di wax ne yonente bi alayhi salatu wasalam dafa wax ne maa ala al ardi ahadun yaqul la ilaha illa allah wallahu akbar wala hawla wala quwata illa billah illa billahi alaliy alazim illa kuffirat dunubu walaw kanat mithla zabad albahri axrajahu tirmidi wa qala xasanun saxix wannasai Abdullah ibn Amr dafay nettali jële ci yonte bi alayhi salatu salaam muy wax ne amul ci kaw suuf koo xam ne dina wax laa ilaha illa allah wallahu akbar wala hawla wala quwata illa billahi al aliy al azim lu dul ne dina far ay bakkaaram donte dafa toll woon ne puuritu géej ba léegi Abu Hurayra di nettaliwaat beneen xadis di ko jële ci yonente bi alayhi salatu salaam muy wax ne man sabaxa allaha taala dubura kulli salatin maktuba miata marra wa hallala miata marra wa kabbara miata marra gufirat dunubuhu walaw kaanat akthara min zabadi lbahr akthar min zabadi lbahr mu ne képp koo xam ne da nga sàbbal yàlla wax subhanallah ginnaaw boo jullee julli ba noppi nga wax subhanallahi téeméeri yoon wax laa ilaha illa allah yoon wax allahu akbar téeméeri yoon mu ne des na la jéggal say bàkkaar donte sax dafa ëppoon tuuti ci géej Abu Hurayra muy jëlewaat ci yonente bi alayhi salatu salaam muy wax ne man qaala xiina yawi ila firashihi laa ilaha illa allahu waxdahu la sharika lah lahu almulku wa lahu alhamdu wa huwa ala kulli shayin qadir wala xawla wala quwata illa billahi alali alazim subhana allah walhamdu lilah wala ilaha illa allah wallahu akbar gufirat dunubuhu wa in kanat mithla zabadi albahr aw qaala akthara min zabadi albahr axrajahu ibnu xibban wa ibnu sunni muttasila wa annasai mawqufa Euh, mu ne yonentu bi alayhi salatu salaam nee na koo xamante ni dafa wax jamono buy dellu ci ab lalam ne laa ilaha illa allah waxdahu la sharika la lahu lmulku wa lahu alhamdu wa huwa ala kulli cheyin qadir walhamdulillah wa wala hawla wala quwata illa billah illa billahi alali alazim subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illa allah wallahu akbar mu ne koo xam ne wax na loolu jamono bu muy dem di tëdd ji ci tëdd ji mooy tëdd guddi ci lalam mu dem ba nga am tëdd rek ko def mu wax baat yi nee yàlla dina ko jégal ay bàkkaaram donte dafa sax tolloon ne puutitu puritu géej wala mu ëpp ko ba léegi xadis bi ala kulli xaal yenn ci borom wax nañ ne ñenn ñi dañ koo soloo yéegaluñ ko jëmaleñ ko ci yonente bi alayhi salatu wasalaam dañ ko nettali rek ci waxu abu hurayra mais lii eh, lahu xukmu rafa nekkul loo xam ne abu hurayra mën na ko waxal boppam parce que mbiru yoon la boo xamante ni mënu koo xam ak xelam ci yonente bi alayhi salatu salaam rek la ko mën a jële ba léegi Muaaz ibn Anas dafay nettali jële ci yonente bi alayhi salatu salaam muy wax ne man qaada fi musallahu xiina yansarifu min salaati subh xata yusalli rakaatay duha laa yaqulu illa xayra gufirat lahu xataayaahu wa in kaanat akthara min zabadil baxru axrajahu limaam Ahmad wa Abu Daawud mu ne yonente bi alayhi salatu salaam nee na koo xam dafa julli fajar ba pare julli suba ba pare mu toog ci fan doon jullee waxul lu lu baax jugul fan doon jule mu toog fa waxul lu dul lu baax mooy waxu fa loo ni lu noonu la ba heure duxaa jot muy waxtu yoor yoor mu jug julli julli yoor yoor imma ñaari rakaa wala ñeenti rakaa mu ne kooku yàlla subhanahu wa taala dina ko jégal ay bàkkaaram donte dafa tolloon ne puritu géej ba léegi Muaz ibn Jabal dafay wax ne dégg na yonente bi muy wax ne man qaala ba'da al fajri thalatha marratin وبعد العصر ثلاث مرات أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه كفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر mu ne yonent bi alayhi salaatu salaam nee na képp koo xam ne da ngaa wax ginnaaw ba nga jullee fajar ba pare wala ba nga jullee tàkkusaan ba pare nga wax ñetti yoon astaghfirullah alazim alladi la ilaha illa huwa alxayu alqayum wa atubu ilayhi mun des na la jéggal say bàkkaar donte dafa tolloon ne puutitu géej axrajahu ibnu sunni wa abu nuaym al asfahani wa kadalika an abi hurayra radi allahu anhu muy wax ne qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam man qaala subhanallahi wa bihamdihi fi yawmin miata marra xuttat xataayaahu wa in kaanat misla zabad albahr li mu doon wax sànq ci subhanallahi wa bihamdihi koo xam ne da koy wax ci bis bi téeméeri yoon yàlla subhanahu taala da koy jégal ay bàkkaaram donte dafa tolloon ne pour ci géej naka noonu ba léegi tamit xadis abi dar alxifaari mu ne kalimatun man dakarahunna miata marra dubura kulli salatin allahu akbar wa subhaanallah walhamdulillah wa la ilaha illa allah wahdahu la sharika lah wala hawla wala quwwata illa billahi al-ali al-azim summa law kanat dunubuhu misla zabad al-bahri la maxathunna la maxathunna mu ne yonente bi alayhi salatu wasalam dafa xam ne ay baata ngi nii ku ko wax téeméeri yoon soo jullee ba noppi mu ne bu fekkoon say bàkkaar dafa tel ne pour ci géej sax dina ko fomp mu ne loolu mooy allahu akbar subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illa allah waxdahu la sharika la wala hawla wala quwata illa billahi al ali al azim beneen bi ci des beneen xaaj bi ci des mooy loo xam ne dafay jéggale ay bàkkaar rek te tënku ko ci ci benn anam ciy jiitu euh, loolu bokk na ci lu mel ne li yonente bi alayhi salatu wasalam wax ci xadisu albarra ma min muslimaini yaltaqiyaani fa yatasafaxaani illa gafara allahu lahuma qabla an yatafarraqa amul ñaari jullit yoo xam ne dinañ daje ñu nuyoonte joxante loxo lu dul ne yàlla dina leen jéggal laata ñu tàqali ko naka noonu ba léegi yaa axi al waqt ba léegi ci xadisu abi hurayra euh, muy wax ne yonente bi alayhi salatu wasalam ne ida tawadda al abdu al muslim aw al mumin fa gasala wajhahu xarajat min wajhihi kulla xatiatin nazara ilayha bi aynayhi maa al ma yonente bi alayhi salatu wasalam dafay wax ne nit ki bu fekkente ne dafa jàpp jullit bi wala ku gëm yàlla ki dafa jug mu jàpp mune ne buy jàpp bu raxasee bëtam bu kanamam mu ne bépp bàkkaar boo xam ne xooloon na ko ak ay bëtam dafay génn ak ndox mi dafay génn ak ndox mi mu bu fekkente ne raxas na ay cëram cër bu ci nekk ndox mi day génne bàkkaar yi ci nekkoon ba nga xamante ne dafay génn nekk ku set ci ay bàkkaar moo tax mu ne xatta yaxruja naqiyan min aldunub ba nga xam ne dafay dem ba buy génn ci njàppale dafay set ci ay bàkkaar axrajahu al imam malik wa muslim wa tirmidi wa qaala xasanun saxiix dafay far ay bàkkaar ci anam boo xam ne anam bu yaatu la jàpp dafay far ay bàkkaar ci anam boo xam ne anam bu yaatu la xadisu abi ayub al ansaari mu ne samitu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul man qaala astagfirullah alladi la ilaha illa huwa alxayu alqayum wa atubu ilayhi xaraja min dunubihi kama taxruju alxayatu min jildiha axrajahu tabarani abu ayub al ansaari mu ne yonent bi alayhi salatu wasalaam nee na képp kuy wax astaghfirullah al azim alladi la ilaha illa huwa al hayyu al qayyum wa atubu ilayhi mu ne di nga génn ci say bàkkaar set ci wicc comme jaan ni muy setee ci deram ni muy setee ci deram ba léegi xadisu ummu haani bint abi talib mu ne qaalat qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam qawlu la ilaha illa allah la tatruku damban wala yushbihuha amal axrajahu alxaakim fi almustadrak mu ne yonent bi alayhi salatu wasalaam daf ne wax laa ilaha illallah du bàyyi bàkkaar wax laa ilaha illallah du bàyyi ak nit bàkkaar bàkkaar yépp lay far mu ne ba pare amul lu nuroog moom ci jëf wax laa ilaha illallah ah laa ilaha illallah mooy afdalu zikr mooy afdalu zikr mais liñ gën a soxla ci nit ki bokk na ci mooy mu mu jëmmal ko ci boppam mu dëggal ko ci boppam bëri na koy wax laa ilaha illallah koo xam ne li muy jëf dafa waroo laa ilaha illallah wa an anas wa an saad ibn waqas رضي الله عنهم جميعا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال حين يسمع المؤذن وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا وفي رواية وبمحمد نبيا غفر له ذنوبه أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي ba léegi Saad ibn Abi Waqaas muy nettali di jëlee ci yonente bi alayhi salatu wasalam mu ne képp koo xam ne da ngaa wax jamono bi nga déggee noddukat bi muy nodd nga topp ko ba mu jeexal nga ni wa ana ashhadu an laa ilaha illa allah waxdahu la sharika lah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabban wa bi muhammadin rasulan wa bil islaami diinan mu ne yàlla dalay jégal sa bàkkaar yëpp ba léegi xadisu abdullah ibn abbas radiallahu anhuma anna rasul allahi sal allahu alih sallam qaala lil abbas ibn abdulmutalib yaa amma ala ahbuk muy xadisu salaatu tasabix wala salaatu tasbix xadisu salaat tasbix xadis bu bari coow la dama ko boole ci mukaffiraatu zunub ala kulli xaal ak coow li ci nekk ndax leen lu bëri ci borom xam dañ ne xadis bi wérul mais xadis bi boo ko ci wàllu gëstu ko te jëfe toppandoo da nga ci càllale xadis bi ci nit ñu ko soloo ak li ñu ci wax ne xadis bi wérul liñ ci wax nga xool ko nga gis ne xadis bu ñu mën a jëfe la te ay fóore ay kilifa wéral nañ xadis boobu ay kilifa ci xam-xam xadis wéral nañ xadis boobu ñenn si ñoom dañ ko taxsin ku mel ne alxaafis ibn alaay da ko taxsin la luñ mën a jëfe jëfe na ko tamit lu bëri ci as-salaf jëfe nañ xadis boobu muy salaatu tasbix bi nga xam yonent bi alayhi salaam joxoon na ko bàyyi bàyyam boobu di al abbas liñ ci ñi ci wax ñi ci bari ci riwaayaat yi wax nañ ci ci ci wàllu càllale yi ñu ko soloo mais wax ñu ci wax nekkul lu dëgër trop ñenn ñi rejeté xadis bi bokk na ci liñ sukkandiku ba léegi xadis bi ni mu melalee julli julli melul noonu dafa am nakaara mooy nuroowul ak julli bi ñu xam mais bu dee foofu la xool kon julli bi nga xam moom lañ tuddee salaatu al kusuuf kenn waru koo jël ndax salaatul kusuuf moo gën a ñàkk nuroo ak julli bi nga xam ne moom la ñuy julli que salaatu tasbix ndax benn rukoo bu nekk dina am ñaari raka benn raka bu nekk dina am ñaari rukoo am na ci sax yenn riwaayat xam ne benn raka bu nekk dina am ñeenti rukoo ñeenti rukoo yoo xam da ngay sëgg lu yàgg si jàngaat alquran julli melul noonu te pourtant lu wér la jóge ci yonente bi alayhi salatu wasalaam kon loolu du lay lay bi ci des mooy ute bi ci yi ko solo ute ci ñi waxee ko ni ñi waxee ko nii loolu boo ko seetloo trop nekkul lu jeex jeexital ci wérug xadis bi loolu bëri na ci ay ahadis yi mu am parce que xataa salaatul kusuuf euh, yonente bi alayhi salaatu wasalaam est ce que du benn yoon la ko mos a julli ci dundam ba ma juumalee benn yoon la ko mos a julli ci dundam te pourtant nañ ko soloo nu róowul dañ ci am ay ute yoo xam ne ute nañ ko ci nañ ko nettalee te taxul xadis bi ñàkk a wér kon loolu du lay ba léegi ala kulli xaal xadis la boo xamante ne am na ci borom xam-xam yu bëri yoo xam ne gis nañ ni luñ mën a jëfe la Euh, salaat tasbix boobu ci ni ko yonent bi alayhi salaatu salaam melalee bu ci diggante bokk na ci nga xam ne yàlla subhanahu taala daf ko ci jégal ay bàkkaaram ba léegi ci xadis Abdullah ibn Mas'ud muy wax ne yonent bi alayhi salaatu salaam dafay wax ne taabiu bayna al wal ula huma yanfiyaani alfaqra wa dunub kama yanfi lkiiru xabas alxadid waldahabi walfidda wa laysa lilxajjati almabrurati sawaabun duna aljanna axrajahu alimam Ahmad mu ne yonent bi alayhi salaatu salaam doon na fettal nit ñi ñuy góorgóorlu ci di taxaw ci aj ak euh, omra ak omra mu ne ñoom ñaar dañuy far dañuy fomp bàkkaar ak ñàkk dañuy far ñàkk mooy dañuy dindi ñàkk ci nit ki dañuy dindi bàkkaar ci nit ki mu ne comme ni nga xamante ni bi noonu la safara di dindee ci weñ ay ay taq weñ bu fekkee dafa taq am lu ca nekk boo ko lakkee muy weñ ci boppam buñ ko lakkee taq-taq yi ca nekkoon yëpp dafay deñ weñ bi dafay set naka noonu tamit or ak xaalis bu ca dara taqee nekk ca buñ ko lakkee ruwal ko da ngay gis ne loolu dafay génn dafay dañ mu ne noonu ko safara soosu di sëtalee mu ne aj ak omra noonu lay sëtalee nit ci ay bàkkaar noonu la koy sëtalee tamit ci ak ñàkk noonu la koy sëtalee ci ak ñàkk daloolu ci xadis xudayfa bi nga xam ne moo nekk ci euh, albuxaari wa muslim mooy bi ko omar ibn alxataab bi omar ibn alxataab laajee saxaaba yi ne leen kan ci yéen moo mokkal xadisu fitna xadisu fitna bi yonente bi alayhi salatu wasallam doon wax ci fitna xudayfa daal dina ko dégg naa yonente bi alayhi salatu salaam muy wax fitnatu rajul maanaam xudayfa dafa dafa dévié bañ a wax omar li omar di laaj xam na ko mu moytundiku ko di ko wax leneen loolu ma ko doon wax mooy fitnatu rajuli fi ahlihi wa maalihi wa waladihi tukaffiruha alsalatu walsiyaamu walsadaqatu wal amru bilmaarufi wannahyu an almunkar mooy yonente bi alayhi salatu salaam daf ne nit ki njuumte yi nga xam ne dina ko juum gaar gaar yi nga xam ne dina ko gaar ci njabootam ak ci alalam ak ci euh, ay doomam daf ko gën a feddali parce que doom yi ci ci njabootam ba léegi la ñuy duggaat mais daf ko gën a feddali mun ne gaar gaar yooyu di ko ci gaar ak njumte yooyu nga xam dina ko juum ci diggante moom ak njabootam ak diggante moom ak alalam li koy far li koy dindi mooy julli yi muy julli koor gi muy koor saraxe yi muy saraxe li muy digle yu baax di tere bon yàlla subhanahu wa dina ko ci baal dina ko ci jéggal juumte nga xam dina ko juum ci njabootam ak ci alalam xadis boobu Euh, albuxaari muslim ñoo ko solo ba léegi yonent bi alayhi salatu wasallam di waxaat ci benn xadis boo xam ne imaam muslim moo ko solo mu ne man aataqa raqabatan muminatan aataqa allahu bi kulli udwin minha udwan udwan minhu min annaari xatta farjahu bi farjihi yonent bi alayhi salatu wasallam di wax ci beneen xadis ne képp koo xam ne da ngaa goreel ab jaam boo xam ne ku gëm yàlla la jaam boo xam ne jullit la nga goreel ko ndax njaamel li ko doon waral ci nit ki mooy weddi yàlla bu nit ki demee ba gëm yàlla kon goreel ko ngëneel yu bëri lay am ngëneel yu bëri laam am euh, nit ki bu goreelee ab jaam boo xam ne dafa gëm yàlla mu ne benn cër bu nekk ci jaam boobu boo xam ne goreel na ko yàlla dina ko goreel ci moom ci safara benn cër bu nekk ci jaam boobu yàlla dina ko ko goreele moom ci moom ci safara mu ne xataa pëyu jaam bi ci pëyam yàlla dina ko ci goreel ci safara kon nga gis ne goreel jaam lu màgg la donte léegi xëy na suñu jamono ji ñuy dund la mën a nekk mu daal di waxaat ba léegi moom yonent bi alayhi salatu wasallam ne as-sadaqa tudfi'u al-khati'ata kama yudfi'u al-ma'u an-nar aw kama yudfi'u naam al-ma'u an-nar mu ne xadis boobu euh, rawahu Tirmidi wa Ibnu Maaja wa Ahmad mu ne sarax dafay fay bàkkaar tudfi'u la jëfandikoo baatu fay ndax bàkkaar dafa tàng dafa am tàngoor bàkkaar dafa am tàngooru safara dafay yàq dafay lakk nit ki saraxe yi muy saraxe dafay fay yàq yooyu nga xam ne bàkkaar bi da koy yàq ci moom comme ni nga xamante ni bii ndox noonu lay fayee safara noonu la sarax di fayee euh, bàkkaar kon sarax tamit bokk na ci nga xam dafay fer ay bàkkaar ci nit ki euh, ba léegi yonente bi alayhi salatu wasallam di waxaat ci kafaaratul majlis mu ne kafaaratul majlis an yaqula al abd subhanaka allahuma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant wahdaka la sharika lak astaghfiruka wa atubu ilayk rawahu tabarani wa huwa sahih sahahu cheikh fi sahih al jami' ba gi yonente bi alayhi salatu wasallam def nit bu toogee ci ab jataay ay wax yoo xamante ni yellul ñu wax ko fa wala ñu jëf fa loo xam ne gënul wala ñu xool fa loo xam ne waruñ ko woon xool balaa ñuy jub ñu wax lii nga xamante ni moom la wax subhanaka allahuma bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta wahdaka la sharika lak astaghfiruka wa atubu ilayka mu ne yàlla subhanahu wa taala daf leen di jégal seen bàkkaar yooyu nga xam ne def nañ ko ci jotaay boobu la muy njumte yooyu nga xamante ni jum nañ ko ci jotaay boobu yàlla subhanahu wa taala daf leen koy jéggal tayib loolu kon ay yenn la laysa min baabil xasr mais lim ji leen na rek ci yi nga xamante ne nit ki mën ci sabab lu def ko yàlla subhanahu wa taala jégal ko ci ay bàkkaaram ci anam boo xam ne anam bu yaatu la naka noonu ba léegi ci yi nga xam ne ay sabab la yoo xam ne day far ay bàkkaar mooy al al al du'a wala du'aul mu'minin mooy ñi nga xam ne ñoom ñoo gëm yàlla li ñuy ñaanal seen mbokk jullit maanaam say mbokk jullit di ñaan ab jullit di ñaanal ab mbokk jullitam loolu bokk na ci asbaab yi nga xam ne yàlla subhanahu wa taala da ci jégal nit ki ay bàkkaaram euh, Aïcha radiallahu anha ak Anas ibnu Malik dañuy nettal di jëli si yonente bi alayhi salatu wasalam muy wax ne ma min mayitin muslim yusalli alayhi ummatun min almuslimin yabluguuna mia kulluhum yashfacuuna illa shuficu fihi Euh, yonent bi alayhi salatu wasallam dafay wax ne amul benn jullit boo xam dina faatu am lu mat téeméeri jullit yu ñëw taxawu ko di ko ñaanal yàlla njéggal lu dul ne yàlla dina ko jéggal téeméeri jullit ñu daje ci ab jullit boo xam dafa faatu di ko ñaanal njéggal lu dul yàlla na ko jéggal kon yàlla jéggal na ko ci sababu seen mbokku ju mbokku jullitam yooyu nga xam ne ñoo koy ñaanal jéggal ci xadis ibne abbas dafa wax ne ma min rajulin muslim yamuutu fa yaqumu ala janazatihi arbauna rajulan laa yushrikuuna billahi shay'an illa shafaahum allahu fihim rawaahu muslim wala rawaahuma muslim ñoom ñaar ñëpp mu alima muslim noo ko noo ko soloo xadis ibne abbas dafay wax ne amul benn jullit buy faatu am lu mat ñeent fukki jullit yoo xam ne daje nañ ci ab néewam jullee ko ñoo xamante ni bi dañu bokkaale ak yàlla dara loolu moo tax li mbooloo mi gën a bari mu gën a baax bu nit ki faatoo ñu yëgle ko pour mbooloo mi bari pour ñu am ci biir mbooloo moomu ñeent fukk ñoo xam ne laa yushrikuuna billahi shay'an du ñu ak yàlla dara ndax yàlla subhanahu wa taala nangu seenu ñaan ci moom mu njëggal ku ko njëggalul an allahuma agfir lahu warhamhu yàlla subhanahu wa taala nangu ko euh, ci moom kon ñaan boobu ñuy ñaanal seen mbokk boobu loolu bokk na ci asbaab yi nga xam ni dafay tax yàlla jéggal ci nit ki ay bàkkaaram mu bokkaat ci sabab yooyu ba léegi tamit euh, loo xam ne dinañ ko jëfal nit ki ci ginnaawam bu fi jógee lu mel ni ñu saraxeel ko wala ñu wooral ko wala ñu ajal ko màkka yàlla subhanahu wa taala jéggal ko ci bàkkaaram mu des ne buntu boobu buntu buntu la boo xam ne uute yi ci borom xam ne uute dafa yaatu lool si ndax mën nañ ko jëfal ab jëf ci ginnaawam ndax yonent bi alayhi salaam daf na waxoon ne ida maata ibnu aadam inqataa amaluhu illa min salaat nit ki bu faatoo ay jëfam dafay dog mooy jëf yi doon jëf dafay dog lu dul ci ñetti mbir mais ndax jëf yi mu doon jëfal boppam bu dogee day waral day waral ne kon beneen jëf boo xam ne defal nañ ko ko jëmale ko ci moom du du àgg ci moom ndax loolu lay xadis bi di tegtale am na ci borom xam ñoom dañuy wax ne alaas ba mooy ne jaamu yàlla nit du ko defal nit moo xam kuy dund wala ku faatu loolu masala la wax masala bu ñuy utale ci xataa ci fiq ci koor gi ñu nekk nii borom xam-xam ñu ute nañ ci ute yu ñenn ñu ne jaamu yàlla kenn du ko defal nit moo xam mi ngi dund wala mi ngi ñenn ñu ne bu fi nekkulee mënees na ko koo defal rawatina bu fekkee moo taxoon defu ko ñenn ñu ne xataa nit ki bu defoon jaamu yàlla yéene yool ba kat ka nga xam ne moom moo faatu lu mën a nekk la mais li jaral lijjanti mooy ndax yool bi yaa ko moom ba koy maye ndax yaa ko moom mooy ndax lu nekk sa loxo la ba nga koy maye wala déet mais li ñu mën a xam mooy nit léeg-léeg mën na jariñu ci jëfu ab mbokk jullitam boo xam ne daf ko caa yéene wala mu am lu mu ko ca ñaanal yàlla subhanahu la taala di ko ciy jéggal lu mel ne nit julli ci waxtu woo xam ne waxtu nangu ñaan la lu mel ne mu bàyyi ba xaaju guddi mu jug jàpp julli wala heure boo xam ne heure taw la parce que taw la boo xamante ni yërmande yàlla subhanahu wa mooy wàcc bokk na ci waxtu yi gën a fàttaliku pour nit ki di ci ñaan muy waxtu taw wala lu mel ne bésu àjjuma rawatina bu ñu jullee tàkkusaan ba noppi nit ki di ñaan foofu. léegi nit ki bu doon ñaan foofu ci waxtu yooyu nga xam ne waxtu yu fàttaliku la mu ñaanaleel mbokk jullitam jéggal yàlla jéggal ko loolu lu mën a nekk la kon nit ki mën na fee jóge ci ginnaawam mu jariñu ci ay jëfu ay mbokk jullitam yàlla jéggal ko ci loolu loolu ba léegi sabab la ci luy far ay bàkkaar. loolu du féewaloog aaya bi yàlla subhanahu wa taala wax ne wa an laysa lil insaani illa ma saa ne jëf ne nit ki amul lu dul jëfam ndax nit ki amul lu dul jëfam terewul ñu gis lu bëri ci ay textes yoo xam dafay ñëw di wan ne nit mën na jëriñ ci jëfu nit ndax yàlla mi ngi wax ne malaaka yi dañuy jéggalul ñu gëm yàlla malaaka yi bu ñuy jéggalul nit ñi yàlla jéggal leen est ce que loolu yow yaa ko jëf jëfuloo ko malaaka bi moo ko def pourtant jëriñ na la yonente bi alayhi salatu wasalaam bi ko yàlla subhana taala di wax naan ko wastaxfir li dambika walil muminina wal muminat jéggalul say bàkkaar nga jéggalaalewul jullit ñi ñi gëm yàlla ñi gën yàlla nga jéggalul leen ñi say góor ak ñi say jigéen ba mu leen di wax ne nanga leen ñaanal njéggal dafa nekkoon ne daf leen nam ma jéggal ci sababu ñaan boobu moo taxoon mu wax ko ne na leen ñaanal njéggal léegi bu yonente bi alayhi salatu wasalaam ñaanalee xeetam yàlla jéggal leen yàlla jéggal leen ci sababu ñaanam est yow mi ñu jéggal ci sababu ñaanu yonente bi alayhi salatu wasalaam jëf boobu du sa jëf boo jëf pourtant keneen ko jëf mais jëriñu nga ci jëriñu nga ci naka noonu nit ki faatu nit ñi jullee ko ñaanal ko yàlla subhanahu wa taala nangu seen ñaan yarhamukallah yàlla subhanahu wa taala nangu seen ñaan ba tax ñu jéggal ko loolu du jëfam kon loolu moo lay wan ne la aaya bi tegtalewul ne nit mun ta jëriñ ci jëfu keneen mais aaya bi li muy tegtale mooy nit moomul jëfu keneen jëfu keneen nekkul loo xam ne yaa ko moom comme ni nga moomee sa jëf waan laysa lil insaani illa ma saa mooy sa jëf rek nga moom jëfu keneen moomuloo ko waaye terewul mën nga cee jëriñu loolu iskal boobu noonu la ko Cheikh lislam taymi rahimahullah xalle noonu la ko tontoo euh, beneen sabab bu ci des ci sabab yi nga xam ne mooy sababu juróom-benneel bi ci sabab yi nga xam ne ba léegi dafay far ay bàkkaar mooy shafaatu nabi sallallahu alayhi wa sallam wa gayrihi fi l axira mooy ramm gi nga xam ne yonente bi alayhi salatu dina ko ramm ñeneen ñi gëm yàlla ñi nga xam ne yàlla dina leen ko baaxee ñu ramm lenn ci seen njaboot wala ci seen i jege ñaale ramm googu tamit sabab la ci sabab yi nga xam ne dafay far ay bàkkaar muy ak shafaa shafaa boobu yonente bi alayhi salaatu wasalaam wax na ci wax yu rëy daan na wax naan shafaati li ahli alkabair min ummati daan na wax naan sama ramm ñun ñi nga xam ñoom laa ko jagleel mooy ñi nga xam dañuy def ay bàkkaar yu mag ci sama xeet bu ëllëgee seen bàkkaar yu mag yooyu nara naral ci ñara waral ci ñoom alkande ma ramm leen daan wax naan yonent bu nekk yàlla jox na la ab ñaan boo xamante ni daf naan la ñaan ko ma defal la ko mu ne yonent yëpp seen ñaan boobu ñaan nañ ko fii ci àdduna yàlla defal leen ko ba mu des man mu ne sama ñaan dama koy denc ba yowmal qiyaam bu sama xeet jàqee ma génne ko ñaan yàlla subhanahu wa taala mu jéggal leen subhaana rabbi al azim yonente bi alayhi salatu wasalaam loolu mooy gën a firndeel li yàlla di wax ci moom ci ne ku ku ku am yërmande la ku am yërmande la ci jullit ñi ku am yërmande ci xeetam la moom ñaanam daf koy denc ba ëllëg mu génne ko ñaanal ko xeetam ngir yàlla jéggal leen góor ñi yonente bi alayhi salatu salaam ne ko taraayu bis boobu weesu na fu nit ñi di xalaatee loolu taraayu bis boobu weesu na fu nit ñi di loolu ci bis boobu la yàlla di njëkk a teral yonente bi alayhi salatu salaam ci mu ñëw shafaa rammu jaam ñi yàlla subhanahu wa taala ñëw li fasl al qada bayna al ibad yàlla subhanahu wa taala ñëw atte diggante jaam ñu ngir ñu tas ndax nit ñi dañ sonn coono boo xam ne ku ne daan nañ ñu atte ñu dem fu fu waay jëm baax na buñ dee dem aljanna ñu dem aljanna buñ dee safara ñu dem safara bi metti na maanaam nit ñi li ñu bëgg li seek seen jubluwaay mooy yàlla subhanahu wa taala euh, tas jotaay bi ci la yàlla subhanahu wa taala atte jàmm bu leen attee nit ñi soog a tas waaye nag xeetu Muhammad alayhi salaatu wasalaam yàlla dafa leen di jagleel ak yeneen mbir yoo xam ne bokkale wuñ ko ak ñu ci des yàlla dina jéggal ci leen ñu bëree bëri bëri bëri tàbbaleen safara tàbbaleen aljanna ci shafaatu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam bi ci des mooy bi nga xam ne yàlla moo ko jagleel boppam ci ak mayam ak mbaaxam ndax yàlla subhanahu wa taala li mu am ci mbaax téeméer la benn mbaax ci téeméer yooyu la wàcce ci àdduna ci la nit ñi di yërëmante ci la bàyyi ma yi di yërëmante ba ab bàyyi ma bu doon dox bay romb doomam dëgg ko sax day teggi tànk bi yërmande boobu mu am ci doom bi ci yërmande boobu yàlla wàcc ci ko suuf la ko jële yeneen quatre-vingt-dix-neuf bi yàlla da koy denc ngir yowmal qiyam mu soog a wane yërmandeem dëgg-dëgg moo tax yàlla ba mu bindee ba mu bindee arsh ba mu bindagul dara la bindoon wax ne inna rahmati sabaqat ghadabi sama yërmande weesu na sama mer yërmande yàlla weesu na meram yàlla bu doon meram moo ëpp yërmandeem kon du fi bàyyi jàmm kon nit doo nooyi sax nooyi bi del siwaat yow yàlla jëlee na fi jàmm yëpp tayib euh, beneen bi ci des muy beneen sabab bi ci des ci yi nga xam ne yàlla subhanahu wa taala dañ ci far ay bàkkaar muy almasaib allati yukaffiru llahu biha alxataaya fi dunia mooy natt yi nga xam ne yàlla da koy teg ab jaam ci àdduna di ci far ay bàkkaaram mais loolu bi charte mu muñ ko bi charte mu muñ ndax nit ñi seen i tolluwaay ci musiba yooyu tolloowul am na ci nit ñi loo xam ne am na ci nit ñoo xam ne yàlla da leen di teg musiba ñu muñ boole ko di wëlbatiku di sant yàlla ci gis ne li yàlla subhanahu wa taala teg ci ñoom ngëneel la du tooñ waaye ngëneel la ñuy sant yàlla am ci ñoom ñoo xam dañuy muñ yem ca am ci ñoom ñoo xam duñu muñ waaye dañuy xàddi musiba yi yàlla subhanahu wa taala di wàcc ci kaw jaam bi muy far ay bàkkaaram dañ ciy charte nit ci muñ bu xaddee du dugg ci ngëneel loolu ndax yent bi alayhi salaam dafa wax naan ida ahaba allahu qawman ibtalaahum faman sabara falahu sabru wa man jazia falahu aljaza mu doon wax naan bu yàlla nammee ci ay nit aw yiw daf leen di nattu man yuridu llahu bihi xayran yusib minhu aw yusab minhu yàlla bu nammee ci nit yiw daf koy nattu imma mu nattul ko boppam wala mu nattu ko ci loxoy nit ñi yusib minhu wala yusab minhu mu ne ku muñ ci ñoom am ngëneelu muñ ku xaddi ci ñoom am ngëneelu xadd am fayu xaddi am fayub xaddi fa lahu saxatu wala fa lahu jaza kon musiba yi nga xamante ne yàlla da koy teg ci nit muy far ay bàkkaaram dañ ciy charte mu taxoo ak sabr muy al euh, muñ euh, Saddaad ibn Aws radiallahu anhu dafay jële si yonente bi alayhi salatu wasalam muy wax ne qaala allahu taala ida btalaytu abdan min ibadi muminan fa xamidani wa sabar ala ma balaytuhu fa innahu yaqumu min madjaihi dalik كيوم ولدته أمه من الخطايا ويقول رب عز وجل للحفظة إني أنا قيدت عبدي هذا وابتليته فأجروا له ما كنتم تجرون له قبل ذلك من الأجر وهو صحيح رواه أحمد والطبراني وهو صحيح مخرج في صحيح الجامع sabbat ibn aws dafay nettal li jëli yonente bi alayhi salatu wasalam muy wax ne yàlla subhanahu wa taala nee na bu fekkente ni damaa nattu sama jàmm boo xam ne daf maa gëm ci samay jaam ma natt ko nee na mu daal di may sant daal di muñ nee na dina jóg ci tëraayam boobu set wicc ci ay bàkkaar comme ni mu meloon bis bi ko ndeyam di jur muy tëraayam boobu mu tëddoon ci natt boobu ko yàlla natt bu cee jóg day fekk mu set wicc ci ay bàkkaar yamul ci loolu mu ne yàlla dafay wax malaaka yi nga xam ne ñooy waxtu ay jëfam di ko bind ne sama jaam bi xam ngeen ne daan na góorgóorlu ci di di ma jaamu di taxaw ci ay jëf man maa ko gàllankoor teg ko li ma ko teg ba tax mu tëdd mënatu koo jëf kon jëf yam daan jëf yu baax yëpp bindal leen ko ko jamono ba mu wéree jëf yam daan jëf ci lu baax lépp bindal leen ko ko moo tax ida marida al abdu aw saafara kutiba lahu amaluhu nit bu feebaree wala mu tukki a tax loolu nekk sabab ci mu tere mënatul jëf yam daan jëf yàlla subhanahu wa taala daf koy bindal yoonu jëf yooyu comme na mu ko daan jëfe بلغي عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة عن النبي صلى الله عليه, عليه وسلم قال ما يصيب ابن آدم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاق بها إلا كفر الله بها من خطاياه أخرجه البخاري ومسلم ba léegi ci xadis abi saïd ak abi hurayra mu ne yonente bi alayhi salatu wasalam yàlla yëkkatil ko ci ay ay ay darajaatam ba léegi ci xadis abi hurayra mu ne yonente bi alayhi salatu wasalam dafa wax ne ma yazaalu albala bilmumin walmumina fi nafsihi wa waladihi wa maalihi xatta yalqa allah wa ma alayhi xatia axrajahu tirmidi wa malik fi lmuwatta mu waxaat ba léegi ci beneen xadis ne ak nattu ay natt du deñ di nekk ci ab jullit bu góor wala bu jigéen natt yi topp ko lu dul ne dina dem ba buy dajeeg boromam day dajeeg moom fekk amatul benn bàkkaar moo tax moo ne laa yazaalu lbalaa bil mumin xatta yadaahu laa danba lahu jullit dina nekk di am ay nattu moo xam ci boppam wala ci alalam wala ci njabootam yàlla di ko teg ay nattu muy muñ yàlla di ko teg ay nattu muy muñ yàlla di ko jéggal ay bàkkaaram ba mu mujj set wicc ci ay bàkkaar dootul dese dara ci kon natt yooyu tamit nit ki da ko war di muñ di xam ne ay ngëneel la yu ko yàlla subhanahu wa taala di defal lenn ci saxaaba yi léeg dañ daan jékki-jékki sax bi xaw a jaaxle ci bu ñu toogee lu yàgg gëj am ay ay natt yoo xam daf leen di dal Xaalid ibn Walid mës na fase soxnaam soo am ni dara joteele lew leen mu fase ko ñu laaj ko mu ne kii aw ma lu ma ko mën a waxal ñu ne ko dox nga fase ko mu ne damaa musta am ci moom benn natt moo am ma fase ko moo tax nee na mu bàyyi ko nee na musta am ci moom benn natt man maanaam lu ñu gis ne natt ci boppam nit ki di ko am ci dara loolu ngëneel la yiw la bu mu boppam ko ciy gis moo tax benn waay mos na ñëw ci yonente bi ko benn affaire eh, di ko wax ne lan mooy feebar mu ne ko yow xamuloo feebar mu ko déet mosoo feebar mu ne ko mu ne ko jiwal yow doo nit ku baax ndax yonente bi alayhi salatu wasalam ashaddu nnaasi balaan al anbiya summa al amsalu fal a tar nit ñi ay natt mooy yonent yi ginnaaw bañ ku gën ku nekk rek fa sa mbaax toll fa la yàlla subhanahu wa taala di nattoo ba léegi beneen sabab bu ci des ci asbaab yi nga xam ne dafay far ay bàkkaar muy juróom-ñett juróom-ñetteel bi mooy maa yaxsul fi lqabri min alfitnati wa aldagtati wa alrawa fa inna hada mimma yukaffaru bihi alxataaya wala mimma yukaffiru bihi alxataaya li nga xam ne dafay dal nit ci nit ci daal dina jànkoonteeg moom ci tiit ak ci fitna ak ci njàqare bu muy nekk ci bàmmeelam njàqare boobu muy nekk ak fitna boobu ñu ko fay fitnaal moom jullit bi gëm yàlla yàlla santal daf ko ci jéggal ay bàkkaaram dafay nekk loo xamante ni dafay teggi ay bàkkaar yoo xamante ni bu ëllëgee yomal xiyam mënoon na ko jural ay torof torof yàlla nattoo ko ko ci bàmmeel bi ñu fitnaal ko ci ci bàmmeel bi bàmmeel bi naj ko ci ñu mettital ko ko fa mu jóg fekk ne bàkkaar yooyu jot nañ ko ko mbugal ci bàmmeel bi fekk na foofu laata muy jóg ci boobu la kon yooyu tamit ay mbir la yoo xamante nit ki mën na koo dund ci bàmmeel bi mu daal di dem jëm foofu bu dekkee kenn du ko ci mbugalaat yàlla subhanahu taala jéggal ko ko beneen bi ci des mooy tamit mu juróom-ñeenteel bi muy axwaalu yowm alqiyama wa kurabiha wa xidaibiha muy njàqare yowm alqiyama ak taraayam ak tiisaayam njàqare boobu nga xam ne dafay dem ba xolu nit ki day ñëw ba mel ne luy génn ci bulu bi ndax tiit goo xam dina ko tiit njàqare boobu mettit la mbugal la ci xam ne dafa weddi waaye tamit njëggal la ci nga xam dafa gëm yàlla ndax njàqare boobu muy nekk ak métti boobu ak boobu muy nekk dafay nekk sabab ci yàlla subhanahu di ko jéggal ay bàkkaaram naka noonu tamit bi nga xam ne mooy fukkeel bi mooy yërmande yàlla subhanahu taala yërmandeem koo xamante ne daf ciy jéggal nit ki ci bàkkaaram ci lu dul mu am sabab fi'lan du am sabab ndax boo xadee boo xoolee ci xadisu shafaa yàlla subhanahu wa taala dina wax malaaka yi ñu ramm ay nit mu teral leen wax leen rammu leen ñu ramm yonent yi ramm ba ñëpp ramm mu laaj kan moo des ñu ne ko kenn desul mu ne man maa des jalla jalaaluhu mu jël ci mbaaxam lu ko fob ci jàmm mu génne dina génne ba génne ci safara ñoo xamante ni bii lam yaamalu xayran qat mu fi ñu def lu baax ci seen àdduna yàlla subhanahu wa taala génne leen tàbbaleen aljanna waa ji ni mujjee génne ni mu mujjee génne aljanna bokk safara bokk na ci gaa yoo xam ne dañ leen di lakk bañ dem ba nekk comme picc boo xamante ni dafay soog a juddu ni ñuy mel ñu koy tuddee al nga xam ne dafay soog a juddu di lakk lakk noonu ñoonu muy mel nga xam ne lakk nañ daanaka ba jeex yàlla subhanahu wa taala génne leen bu leen génnee da leen di wax laata ngeen leen di dugal aljanna yóbbu leen leen ci nahrul xayaa benn dex boo xam ne mi ngi ci diggante safara ak aljanna ñu sóob leen foofu bu leen fa soobee yonente bi alayhi salatu salaam nee na dañuy dekkiwaat seen yaram yi dafay dundaat comme euh, saxayaay ni ñuy dundee maanaam bu tawee fekk am ay pepp yoo xam ne dafa rotoon bu ndox mi ñëwee da koy yóbbaale pepp yooyu bu ko yóbbaalee bu demee ba ca dex ci déeg ba pepp yooyu dafay teer mooy dafay teer ci booru dex bi léegi bu fa teeree day sax génn gàncax boo xam ne ku rafet la gàncax googu ni muy saxee mu ne seen yaram yi noonu lay saxaatee ñu leen yóbbu sax aljanna ñooñu la ñuy tuddee aljahannami yoon dañuy dem aljana ñu leen di tuddee waa safara aljahannamiyuuna waa mujjee yóbbu waa ji dafay nekk ci biir aljanna safara di wëlbatiku di ñaan naan yàlla jële safara yàlla génn ma yàlla génn ma yàlla subhanahu wa taala daal di koy nangu mujj koo génne ñenn ñu ne ci yenn aaxar yi ne Juhayna la tudd Juhayna moo tax ñuy wax naan inda Juhayna alxabarul yaqin Juhayna mooy ki xam dëgg-dëgg mbir ma na mu demee mooy mujjee génn safara boo bu ko borom bi subhanahu wa génnee mu nekk ci bunt bi ba mu yàgg mu a yàlla féewalee sama kanam safara ma bañ a tey dugg jàkkaarloo ko moom di ko xool mu féewaleeg boppam yàlla féewale ko safara ne ko ndax du ma ñaanal ne mu ne ko duma ma la ko ñaanal loolu rek laa bëgg féewaleel daal ba du ma gisati mbugal mi bu ko defee sama xel di ci bañ a dem yàlla wëlbati ko ñu toog ba mu yàgg mu ne yàlla jegeel ma tuuti aljanna yàlla subhanahu wa taala ne ma laaj dara mu ko loolu rek mu jegeel ko mu toog ba mu yàgg mu ne yàlla bëggoon dugg ci biir su borom subhanahu yonent bi alayhi salaam bi mu nettali xadis bi dafa reetaan yàlla subhanahu wa taala ne ko xamoon naa ni fii ngay jëm doomu aadama noonu la mel dafa bëri dàggasante boo ko waxee nangam danaan du ko def mais xamoon naa ni fii ngay jëm yàlla subhanahu wa ne ko mbébétal lu la sopp ci loo bëgg mu mbébét yàlla di ko fàttali naan ko ak nangam fàtte nga ko def mu naan waa ak nangam yàlla di ko fàttali ba mu mbëbët ba fu mbëbëtam yem mu ne ko am nga loolu ak lu ko ëpp ak lu ko ëpp ak luñ ko ful luñ ko ful ci biir aljanna yàlla nañu yàlla defal aljanna loolu mooy njëggalu borom bi subhanahu wa taala ku ñàkk ñu njëggal loolu wax wax dëgg yàlla ku ku texee di nga maanaam moo tax ci yenn athar yonente bi alayhi salatu wasallam di wax ne eh, l'imam ibn mës naa ko romb ci tafsir ibn kathir xamatuma wéram ak ñàkk wéram yonente bi alayhi salatu wasallam di wax ne amul kuy tàbbi safara bu ëllëgee lu dul ne ku toogoon ak yow wax ak nga xam ne safara moo gën a yëy ci yow aljanna ku tabbi safara rek safara moo gën a yëy ci yow aljanna ndax yërmande yàlla dafa yaatu léegi loolu mooy fukki sabab yi nga xam ne alimam ibn alqayim ibn taymiya rahimahullah indi na ko ci majmuul fatawa ci as sabab yoo xam ni sabab yooyu yëpp ku ci nekk boo ko seetloo lu bëri la ci yàlla mën a jéggal nit ki ci ay bàkkaar mais am na beneen sabab boo xamante ni mën nañ ko cee dolli boo xam ne fii ci àdduna lay amee muy mu doon bokk fukk ak benn mooy li ñu tuddee al xudud mooy daan yi nga xam ne yàlla teg na ko ci àdduna bu fekkente ne dañuy atte atte yàlla subhanahu wa taala ci kaw suuf nit ki bu defee nàngam ñu daan ko mooy bu defee bàkkaar boo xam dafa am daan ñu teg ci kawam daanu yàlla boobu daan boobu ñu teg ci kawam day raxas bàkkaar bi moo tax benn waaye mës na euh, njaaloo fekk mu nekk ku am ku mës a sëy nekk ku mës a sëy ñu ngi tuddee moxsan bi mu njaaloo dafa ñëw ci yonente bi alayhi salatu wasallam ne ko yaa rasulallah nii daf na ko yow yonent yàlla bi setal ma damaa def bàkkaar boo xam ne ma def taq taq setal ma kon nga gis ne xudut yooyu dafay setalaate moo tax yonent bi alayhi salatu wasalaam ci xadisu Ubaada ibn Saamit euh, dafay wax ne yonent bi alayhi salatu wasalaam benn bis daf doon wax fekk ay saxaaba ñu ngi ko wër mooy ci xadisul bay'a mooy bi muy jaayante ak ñoom muy wax ne baayauni ala an laa tushriku billahi shay'an wala tasriqu wala taznu wala taqtulu awlaadakum ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا ولا تعصوا في معروف فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه xadis boobu yonente bi alayhi salatu salaam bi mu ci jaayante ak saxaaba yi ci ñu moytandiku bàkkaar yi daf ne leen képp koo xamante ni matal nañ bi ñu jaayante ne bàkkaar yi dina ko moytandiku du ko def ku ko ku matal nee na kooku fayam ma nga ci yàlla subhanahu wa taala waaye koo xamante ni matalu ko mu def ci benn ci bàkkaar yooyu mu ne ñu daan di ko koy mbugalee fii ci àdduna mooy ñu teg ci kawam acte bi nga xam ne moom la yàlla teg ci kawam muy daan bi nga xam ne moom lañ teg ci àdduna mu ne fa huwa kafaratun lahu mu ne daan boobu dafay nekk kafaara muy dafay nekk luy raxas bàkkaar boobu mooy nit ki nga xam ne dafa njaaloo ñu teew ko loolu day raxas bàkkaar boobu loolu tuub la mais mu bañ a nekk loo xam ñàkk pexe moo tax mu def ko mais bu ñëw ne nañ ko raxas ci bàkkaar boobu bu ñu ko defee dafay raxas bàkkaar boobu moo tax ndaw si ñëwoon joxe boppam ci yonente bi alayhi salatu wasalaam ngir mu taxawal ci kawam xaddu zina ngir ñu rajma ko ndaw soosu di mu insister ba ñu rajma ko duñ ko rajmee ba pare yonente bi alayhi salatu wasalaam daf ko doon jullee di ko yonente bi alayhi salatu wasalaam Omar dafa jaaxle ne ko yow yonentu yàlla bi ndax da koy jullee te mu def bàkkaar bu mel nii yonentu bi alayhi salatu ne ko Omar ndaw si tuub na tuub boo xam ne bu ñu ko séddale woon waa Madina yëpp mu doy leen ko séddale woon waa Madina yëpp mu doy leen kon gis na ni bàkkaar yooyu nit ki bu ko defee ñu teg ko ab daan fii ci àdduna dafay nekk loo xam ne dafay raxas bàkkaar boobu dafay setal bàkkaar boobu moo tax yonentu bi alayhi salatu ne képp ku def ci yéen bàkkaar ci bàkkaar yooyu ñu daan ko ci àdduna ne na daan boobu mooy nekk luy setal bakkaar bi mais ne bu fekkente ne yàlla da koo suturaal ba kenn xamu ko mooy kon kenn tegul ci kawam xadd mu ne loolu bu boobaa digganteem ak boromam la bu soobee yàlla yàlla jéggal ko ko bu ko soobee mu mbugalee ko ko loolu mooy euh, fukkeelu sabab bi ak euh, benn loolu lañ dajale ci yi nga xamante ni moom lañ tuddee mukaffiratu zunub nga gis ne waxtaan ci lu am solo la ndax dina gën a ñaax nit ki koo sawarloo ci mu gën a sawar xam ne yàlla subhanahu wa taala mi nga xam ne moo ko sant muy jëf nekkul ku soxor koo xamante ne bi euh, dafa néew yërmande nekk koo xamante ne dafay fay jaan ci rek la nga xam ne loolu lañ yelloo mais yàlla li muy jëflanteeg nit ñi moo yërmandeem moo tax yonente bi alayhi salatu salaam doon wax naan ma min ahadin yad ma min ahadin yadxulu aljanna aw laa yadxulu aljannata ahadun illa bi rahmatillah yonente bi alayhi salatu salaam daan wax naan kenn du dugg aljanna lu ci yërmande yàlla laa yadxulu aljanna ahadun illa bi rahmatillah kenn du dugg aljanna lu dul ci yërmande yàlla ñu ne ko xatta anta ya rasulallah mu ne xatta ana illa an yatagammadani allah bi rahmatihi ñu ne ko ba ci yow yonent yàlla mu ne ba ci man su ma yàlla baaxewul ak yërmandeem du ma dugg aljanna yi ci yërmande yàlla ku dugg ci yërmande ndax xatta jëf yu baax ngay def ngir mën cee yelloo dugg aljanna jëf yooyu ci yërmande yàlla nga ko mën a defee ndax yàlla moo la baaxee saxal la ba nga mën a def jëf yu baax yooyu kon jëf yi ngay def ngir dugg ci aljanna du loo xam ne da si ciy wécce ak sa borom mel na kuy jaay di jënd mais da ngay sabab lu ngir yàlla yërëm la dugal na aljanna kon bima kuntum taamaloon bi mu doon wax naan dugg leen aljanna ci la ngeen daan def mooy ci sababu la ngeen daan def mais du caagante ni ngeen daan def mooy da ngeen mel na ku jënd aljanna ci joxe prix bi ñu jox leen li ngeen di jënd aljanna kenn mënu koo jënd beneen mbir bi ci mooy ci buntu ar raja muy buntu yaakaar yàlla subhanahu wa taala ay xéewalam gis nañ yàlla subhanahu wa di wax ci ñi nga xamante ni bi ñoom ñoo gën a màgg ci ay jaamam muy yonent yi na kaanu yad'unana raghaban wa rahaban wa kaanu lana xaashiin ne ñoom dañ daan jaamu seen borom di taxoo ñaari mbir mooy di am xemmem ak di am nekk yàlla ci ay fay ak di moytandiku ak di ragal la nga xam ne moo nekk ca yàlla ay mbugal am ci lenn yi ñëw gis ne di jaamu yàlla ci teg ko ci kaw yaakaar nekkul loo xamante ni lu lu lu mat la lu gën mooy nit di jaamu yàlla teg ko ci kaw bëgg kese bëgg mooy ne man yàlla dama laa bëgg di la jaamu jaamuwu ma la parce que da nga maa dikk njéggal da nga maa dikk aljanna mais dama lay jaamu parce que ma laa bëgg mooy li mu daan askanale ku mel ne rabia al adawiya naan daf daan wax naan dañ ko daan askanale ndax ñeneen ñi ne leen du dëgg rabbi maa abadtuka tamaan fi jannatika wala xawfan min azabik walakinni abuduka li anni li annaka tastaxiqu al ibada yow yàlla man jaamuma la parce que damaa bëgg aljanna wala damaa ragal safara waaye dama lay jaam parce que naa yelloo al ñu jaamu la loolu dëgg la mais yàlla moo ñu jaamuloo boppam ci bëgg ab ayam ci moytandiku li nga xamante ni mooy ay dumaam yàlla subhanahu wa taala moom moo ñu jaamuloo boppam ci kaw loolu ñaareel bi ci des moom moo tagg ay yonentam ci melokaan boobu muy melokaanu meloo bëgg ak di ragal beneen mbir bi ci nekk mooy njuumte li ngi jógee ci ñooñu te suñu juum mooy seen déggin ci bëgg fayu yàlla muy aljana seen déggin ci loolu dafa nekk lu xat ndax ñoom dañuy gis ne aljana mbindeef la rek boo dee jaamu yàlla ngir sa jaamu yàlla matul sa ixlaas matul mooy sa sellal matul ndax aljana mbindeef la comme yow da ngay jaamu yàlla ngir mu fayee la aljana aljana mbindeef la comme yow mais seen déggin ci aljana moo xat ndax ñoom aljana dañu yaakaar mi ngi yem rek ci la fa nekk ci ay bànneex xóoru añ lekk naan ak loolu mais aljanna dégginu aljanna yu gën a weesu loolu aljanna mooy ridwanullah aljanna mooy ngërëmu yàlla subhanahu wa taala ci jàmm loolu mooy teg aljanna ak la ca nekk ci gis borom bi subhanahu wa taala ak dajeeg moom loolu mooy li gën a màgg loo xam nit ki da koy sàq nit mënta am lu gën a rëy loolu ci aljanna rek la ko mën a amee muy dajeeg sa borom gis ko muy ru'yatullah bu dul aljanna mënuloo koo am muy ruya boobu nga xam ne mooy ruya boobu koy gis ci arakaatul qiyaama mais gis boobu bokk la gis bi ñu koy gis ci aljanna bu fekkente ni da nga bëgg yàlla dëgg dëgg dëgg amul lu gën a rëy nga dajeeg sa borom gis ko kon bu dee yàlla ngay sàkku war nga koo jaamu ngir ci nit aljanna ndax aljanna jooju mooy terangaam bi nga xam ne fa nga mën a dajeeg sa borom kon nga gis ne ñoom seen njumte mi ngi dikkee ci ñàkk a comprendre dëgg-dëgg ban sens la duñu waxee aljanna ban sens la am ñoom dañ koo jàppeelu xat mais gën na yaatu loolu Euh, kon ala kulli xaal nit dafa war a jaamu yàlla subhanahu wa taala taxoo ñaari mbir yooyu mooy dafa war di am yaakaar di góorgóorlu parce que borom bi muy jaamu gëm na ni dina ko fay gën na ni gàttañ loon liy jóge ci moom itam yàlla dina ko jéggal kon loolu dina tax mu gën a sawar gën a góorgóorlu waaye tamit muy tiit di moytandiku def lépp loo xam ne day tax loolu muy séntu mu ñàkk ko lépp lu ko ko nar a xañ mu moytandiku ko bàyyi ko ñaari mbir yooyu la nit ki war a taxool mais warul wax rek ne damay am rafet njort yàlla moo ne ana inda xusni zanni abdi bi man ki ma sama njaam jaam bi njort rek fa may fekk bu njortee ci man lu baax noonu la bu njortee ci man lu bon noonu la nga man damay njort ci yàlla lu baax jeex na euh, fàttaliku li alxasan albasri waxoon ne kadaba law axsana zanna billahi la axsana al amal alxasan albasri nee na ki nga xamante ne daf ne dafa rafet njort ci yàlla te rafetalul jëfam mu ne waxul dëgg ndax bu rafetoon njort ci yàlla dafay rafetal jëfam loolu mooy li nga xam ne moom la ñuy wax di ñaan yàlla subhanahu wa taala mu dolli ñu ay xéewal dolli ñu yërmandeem jéggal ñu suñuy bàkkaar yéewal ñu wa axiru daawana an alhamdulilahi rabbil alamin alamin wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa alihi wa sahbi ajmain kon xëy na mbokk yi li des ci thème wax dëgg yàlla duñ ci yokk lu bëri ànd ak ne dañuy wax ne rek wax dëgg yàlla ni ñu ko woon ci bi thème la boo xam ne dañ ko aajowoo ba tax néew na sax ngay fekk ñuy waxtaanee thème bu aju ci mukaffiratu zunub parce que ni dañoo jàpp ne xëy na euh, lu yomb la wala nekkul loo xam ne ñi réere dañ ko waaye wax dëgg yàlla mbokk mi def kaa tënk lool waaye thème bu yaatoo yaatoo la boo xam ne liñ ci mën a wax lu bëri la euh, leneen li it daañu wax ne détaillé ne ko ci anam yi nga xam ne moom lañ tuddoon muy façon bàkkaar yi am al anwaau zulm asalasa mooy nit ki imaam mu tooñ bopp boppam wala mu tooñ yàlla te mooy bokkaale ko wala mu tooñ moroomu jaamam te moom mooy mu daal di teg ci dara mu dul noonu wala jël ay àqam euh, yooyee bu ci nekk wax na naka lañ koy tuubee détaillé na tamit ci anam bu yaatoo yaatu asbaab yi nga xam ne wala lii waral ñu fomp bàkkaaru doomu aadama bi mu tudd ci yu bëree bëri yoo xam ne dañ ci jaaraat mu tudd yi nga xam ne ay sabab la ay sabab lay mën a doon lay mën a nekk ba tax na su ko nit ci sabab loo su boobaa borom bi subhanahu dafay daf koy jéggal ay bàkkaaram yooyee nag ay façon la am na ci sabab yoo xam daf koy jéggal bàkkaaram rek am na ci yoo xam daf koy jéggal bàkkaaram donte dafa toll ni fuuritu xam ne daf koy jéggal bàkkaaram donte sax dafa ëpp fuuritu géej gi am ci yoo xam ne moom dafa am sabab pour mu daal di nekk loo xam ne dañ ko ciy jéggal ay bàkkaaram lu demee ni kafaaratul majlis ak lu demee ni li nga xam ne moom tudd si shafaa ak yu demee noonu kon dañ wax ne rek bu am am solo la mbokk mi dañ koy ñaawal borom bi mu fay ko parce wax dëgg yàlla woor ba pare xëy di wax lu tolloog ñaari waxtu at lu teg euh, nekk di ko wax wax dëgg yàlla loolu nekkul loo xam ne lu yomb la kon ñu ngi ñaan borom subhanahu wa taala mu daal di koy defal li nga xam ne moom mooy euh, balance yi yomb li des moom mooy beneen partie bi mooy lu aju ci wàllu yi ni ngeen ko waxee woon dañuy sàkku ci mbokk yi rek insha allahu taala ñu nekk ñoo xam ne euh, laaj yi na fexe nañ fexe ba mu nekk loo xam ne dafay tënku ci li nga xam ne moom mooy thème bi di ngeen ko xamee li ñuy dese ci waxtu yu bëriwul ba tax na laaj yi gën a jël rek mooy yi nga xam ne aju na ci biir sam bi incha allahu taala euh, ñi nga xam ne ñu ngi koy defee nag mooy mbokk yi nañ fexe bind mu ñu daal di koy jot ci taabal ji ñu mën a bind ci français dañ ko def ñu mën a bind ci arabe it ñu daal di koy def su boobaa incha allah laaj yi gën a jàll. leneen li ñu fàttali mbokk ma la toog euh, ci taabal ji euh, li ko fa tax a toog mooy bépp mbokk boo xam ne pare na pour daal di joxe ci li nga xam ne moom mooy yoonu yàlla dogal ñi nga xam ne ñoom ñooy dogoo fii ci jàkka ji. Eh, ci ngoon gi su boobaa lépp loo xam ne am na ko mën na ko mën na kaa àggale ci moom incha allahu taala ko dañuy dugg ci li nga xam ne moom mooy lu aju ci wàllu laaj yi nu ñu ko waxee mbokk mi def na dewaaram duñ ci taalix ànd ak ne bu ngeen xoolee jotaay bi nuruwul muhaadara nuruwul waxtaan parce que dafa am ci mbokk yi ñoo xam ne jàngal lañ gën a mën ko waxtaan eh, moo dafa bokk ci ñëw ba tax na bu ngeen xoolee da ngeen di gis ne ab darsa la woon ba tax na xëy na ajiwul ci wàllu suivre ko bu baax a baax soo moytuwul li muy wax da nga jëriñu waaye dëgg-dëgg ci ban tomb la nekk ak ci ban biir ak fan lay waxee loolu mën na laa rëcc parce que li mu doon joxe dars la kon jazakallah xayran kon eh, bi ñu njëkkee ci laaj bi ci dafay wax ne dafay laaj ndax musiba yi nga xam ne dafay dal nit ki ci wàllu alalam ak li nga xam ne nit ñi dañ koy jël ci alalam lu demee ni ay bor te biñ ko ko delloo loolee ndax euh, xaw li mu bëgg laa jàpp naa ne ndax loolee dafa bokk ci li nga xam ne euh, dañ ko ci kafaaral ay bàkkaaram ndax dañ ko ci fompar ay bàkkaaram wala déet maanaam alal ji nga xam ne daf koo am nit ñi di ko jël ci anam boo xam ne imma bor la wala imma alal ji dafay sànku dem duñ ko ko delloo ndax loolee dañ koy jàppee li nga xam ne moom mooy luy fomp bàkkaar wala déet alhamdulilah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ala kulli xaal loolu tamit e, dafay nekk min al masaayib yi nga xam ne nit ki dañ ko koy natt ci alalam ay nattu la la chaq parce que li ñu waxoon sànq ne man yuridi llahu bihi xayran yusab minhu yàlla bu namee ci jaam yiw daf koy nattu natt boo xamante ne ci loxo nit ñi la koy jaarale la chaq ne natt yi yàlla di jaarale ci loxo nit ñi muy agsi ci nit ki du nekk lu dul ci alalam wala ci boppam wala ci njabootam moo xam ci ay wax yu ñuy wax ci kawam wala lor bu ñu koy lor ci alalam loolu laa fekk ne mbir la yoo xam ne bu fekkee muñ na ko muñ na ko mu delloo ko ci yàlla subhanahu wa taala loolu nag dàqantewul ak mu sabablu ngir jotaat ci alal jooju ak ngir sàmm ko ngir sàmm ko mais loolu di ko ci rëcc ci ay natt yoo xam ne da ciy am loolu bu fekkee muñ na ko mu delloo ko ci yàlla subhanahu wa taala yàlla dina ko ci jéggal ay bàkkaaram yëkkatal ko ci ay ay darajaatam wallahu alam ñaareelu laaj bi ki dafay laaj ne ndax nit ki su fekkee ne jéggalu na yàlla ndax mën naa am màndarga yi muy xamee ne borom bi nangu na li nga xam ne mooy ak tuubam bu fekkee nit ki dafa def lu dul loolu mu daal di tuub ndax mën naa am màndarga yoo xam ne ci lay xamee ne carrément ne borom bi nangu na ak tuubam. naam la fekk ne nit ki bu fekkee dafay tuub di jéggalu borom subhanahu wa taala ay bàkkaar mën na am ay alamat yoo xamante ni mën na cee foogee ne yàlla subhanahu wa taala nangu na euh, jéggalam yooyu bokk na ci yooyu bañ goo xam ne dina ko bañ bàkkaar yooyu mu jéggalu borom bi subhanahu wa ay bàkkaar yoo xam ne tàbbi woon na ca gis ne bàkkaar dafa bëtiku nekk ci moom loo xam ne lu lu lu lu lu mu bañ la loo xam ne tàbbi waat ci ak ku ko rey la yemale beneen bi ci des mooy oyof boo xamante ni jaamu yàlla oyof na ko ci moom nekk ku gaaw mun taxaw ci jaamu yàlla ko bëgg mooy inshiraahu sadr bu ko amee ci digganteem ak jaamu yàlla yu nekk lu oyof dina xam ne kon bàkkaar yooyu nekkoon ci kawam ba di ko diisal yàlla subhanahu wa taala jéggal na ko ko loolu yàlla dina ko cee wane fi'lan ne nangu na euh, tuubam bi nga xamante ni tuub na ko yàlla mën na ko ko wan noonu ak yeneen bunt yoo xamante ni lu mel ne gis muy ar-ru'ya sadiqa yàlla mun na ko ko wan mu gis ko ci nelaw ak ci yeneen bunt yu dul euh, bunt yooyu wallahu aalam jotoon nañu wax ne feebar bokk na ci mbir yi nga xam ne wala musiba yu dal doomu aadama bi bokk na ci ñi xamee ne euh, loolee bokk na ci liy wane ne dañuy far ay bàkkaaram léegi muy laaj loolee bokk na ci feebar feebar bokk na ci yenn feebar yi dafay nekk loo xam dafay far bàkkaaru nit ci ndax ci anam boobu dana dagaan nit ci bëgg feebar wala mu nam mu feebar wala mu ñaan yàlla mu def ko mu feebar ngir ay bàkkaaram daal di fomp ala kulli xaal nit ki warta mbébét am bàkkaar am am feebar nit ki warta mbébét yonent bi alayhi salaatu salaam daf doon wax saxaaba yi mbir la muy ci xare Tabuk bi nga xamante ni dem nañ baa bi Tabuk war a daje ak Ruum seen ñoom ñëwagul ñoom ñu ñoom ñu wàcc ba campé benn guddi yonent bi alayhi salaatu salaam dafa jug taxaw mu wax ak ñoom mu ne leen laa tatamannaw liqaa al adu fasalu llah al aafiya mu ne leen bu leen mbébét daje ak seen yi noonu ñaan leen yàlla mu defal leen mucc wa ida laqitumuhum fasbiru waalamu anna aljannata taxta zilaali suyuf waaye bu ngeen dajee ak ñoom nag na ngeen muñ ngeen xam ne aljana mi ngi nekk ci suufu keru jaat yi kon nit war ko ndëbët nattu ndax nattu dafa tar te wóorul ba xam bu ci nit ki duggee bu demee ba ci biir dina mën a continuer di muñ wala déet moo tax doomu aadama war ko di ndëbët ay nattu ci boppam moo tax ñuy wax naan لا يعرض المؤمن نفسه للفتن وثوقا بنفسه بل يسأل الله العافية jullit war a jaar boppam ci ay fitna ngir dafa wóolu boppam yaakaar naa ni bu fitna ñëwee dina ko mën a dékku dafa war a ñaan yàlla mu defal ko mucc ndax mucc moom moo gën moo tax yonente bi alayhi salatu wasalaam bi nga xamante ni bi dem na Taif ñu sonal ko ko boole ko ay xale ak ay dof yu koy tànn bi mu génnee ba ci bokk na ci li mu doon ñaan yàlla subhanahu wa taala di ko ak di ko gërëm ci lépp lu mu def di won ne nangu na ndogalu yàlla natt bu ko yàlla teg nangu na ko mais daf cee doole ne gayra an aafiyataka aw sahu lii waaye nag sag muccal gooma muccal moo gën a yaatu ci man mooy moo ma gënal kon ñaan yàlla bu muccal la waaye terewul ne nangu nga ay ndogalam loolu moom moo gën ci moom dafay laaj ne bokk na ci yi nga xam ne dafay far bàkkaar ba tey mooy tuub léegi muy laaj lan mooy différence mal farqu bayna tawba wal istighfar bu ñu waxee tuub moom mooy lan istighfar moom mooy lan lan mooy différence bi diggante ñaar yooyu ala kulli xaal tuub mooy comme liñ liñ ko définir woon sànq tuub jëf la boo xamante ni cër yëpp lépp a koy def tuub cër yëpp koy def tuub di yem ci làmmiñ bi alors que istixfaar ci làmmiñ lay jógee donte xol bi am na ci wàll mais tuub moom moo gën a yaatu tuub moo gën a yaatu ci nit ki bàyyi bi muy bàyyi bàkkaar bi jóge ca fas ne dootul dellu ci bàkkaar bi réccu ko loolu moo gën a yaatu ndax te itam moo gën a mën a far ay bàkkaar moo gën a am kàttan tuub bàkkaar yépp lay far bàkkaar yépp lay dindi ku ku tuub dafay mel na ko amatul bàkkaar nit ki bu tuubee ci bàkkaar xalaat xatta bu fekkonte ni ci kéefër la nekkoon wala mu nekkoon ci bokkaale bu ko tuubee yàlla subhanahu wa taala da koy da koy jéggal alladina la yadcuuna maa allah ilahan axar wala yaqtuluuna annafsa allati xarama allah illa bilxaqi wala yaznuun wa man yafcal dalika yalqa asama yudaacaf lahu alcadabu yowma alqiyamati wa yaxlud fihi muhana illa man taaba wa amana wa amila salihan fa ulaika yubabiru llahu sayiatihim xasanat loolu tuub rek moo am kàttan boobu ci daxtaar yi mag yu toll noonu waxuma mu farq waaye mu wëlbati ko mu nekk ay ay ay ay jëf yu baax mu nekk ay yool loolu beneen masala la muy masalatu ay ay jëf yu bon nit ki def ko tuub yàlla wëlbati ko mu nekk lu baax tuub moo am kàttan boobu mais bu dee istigfaar nit ki mën na koy def di istigfaar du duni tawba ci lu dul mu ànd ak tuub ndax deful bàkkaar boo xam ne si lay tuub nii nii nii waaye muy def istighfar rek ci jamono façon boo xam façon bu yaatu la boo xamante ni namm ko waaye yéenoo ko ci benn bàkkaar nekkul ne dafa am bàkkaar boo xam moom lay def istighfar nii nii nii nii loolu tuub lay tudd mais mu toog rek di def istighfar di jéggalu boromam subhanahu wa taala ci lépp mbiram ci lépp mbiram te mu bañ a ànd ak tawba loolu bu boobaa mën na raxas lu bari ci ay bàkkaaram waaye laa shakk ne amul kattan ak doole bi xam ne tuub am na ko euh, amee na ko kattan wallahu alam kon dafa mel ni mbokk yi mën nañ doyloo loolu ci li nga xam ne moom mooy aju ci wàllu laaj yi euh, waxtu wi jege na des rek moo ñu mbokk yi li nga xam ne moom mooy programme bi incha allahu taala dimanche bii di ñëw tolloog le 23 euh, septembre dana am beneen waxtaan bu fiy am mi ngi tàmbali 11h thème bi mooy attaqwa asbaabuhu muawiqaatuhu wa sifaatul muttaqin su ko taxee mooy suñu mbokk oustaz Ibrahima Khalil Lo gannaaw loolu it ñu xamal mbokk yi ne diggante altine ba Euh, alxamis ngoon gu nekk am na ay cours yi fiy am dana tàmbali suba insha allah suba gannaaw tàkkusaan am na téere bu ñu fiy jàngale mu tudd alqawaidul arbaa bu cheikh mohamad ibn abdul wahab talaata gannaaw tàkkusaan am na téere bu ñu fiy jàngale manhaju salikin euh, li nga xam ne mooy àllarba it am na téere bu ñu fiy jàngale mu aju ci durus ramadan yi gannaaw tàkkusaan alxamis daañ fi jàngale yenn ahadis yoo xam ne dañ koo tànn ci téere bi ñuy wax riyaadu saalihin mu nekk ay xadis yoo xam ne dafa aju ci rek ahadisul ahkam kon loolee ñu daal di koy bàyyi